neexee du ma leen nuyu quoi loolu dafa waroon am comme ça yenn saa yi su ma amee envie fas kanam ma fasal leen kanam waaye fasal leen kanam genre du leen nuyu parce que man tous les jours maa ngi ci seen kër yi maa ngi ci saal yi maa ngi ci téléphone portable yi maa ngi ci ordinateur yi maa ngi ci réseaux sociaux yi maa ngi ci euh, maa ngi ci seen néeg yi voilà donc y des jours doo bëgg a wax ak kenn quoi fas kanam. donc dañ ma waroon autoriser may fas kanam quoi mais malheureusement non seulement autoriser wuñu ma ko mais mënu ma ko voilà je suis très content de vous retrouver comme chaque dimanche na ngeen def mbaa jàmm ngeen yendoo j'espère tey le dimanche euh, demain on démarre une nouvelle semaine donc heureusement am ngeen télévision Futur Média surtout euh, Teranga Sénégal tey nag comme chaque dimanche ci la ñuy amal grand maye grand maye bi nag mooy maye loo yu mag yi donte semaine bi yëpp dañuy maye ay euh, cadeau yu euh, doy waar comme vous le voyez ci écran bi euh, ay téléphone portable ay parure or ay réfrigérateur ay salon ay chambre à coucher yooyu wax waxaat du bëri wax mais bon comme je dis souvent euh, tubaab nee na la répétition elle est pédagogique tey aussi euh, dañ ko ciy tegaat comme dimanche bële ak dimanche bële ak dimanche bële donc toute la semaine on vous a offert beaucoup de cadeaux euh, dimanche après-midi nag entre 16 h on se retrouve en direct bu ko defee yéen ñi añ ba pare nekk ci biir kër yi relax àndandoo ak ñun ma defal leen show bi teral leen seen ay xol sedd comme ça ngeen mën a non seulement faj seen ay soxla ci lu ngeen foogul woon bu neex donc on est là euh, pare nañu pour àndandoo ak yéen juste remercier partenaires yi nga xamante ni ñoom la àndal d'abord ñoom ñoo jox confiance euh, groupe de presse bi gën a mag fii ci Sénégal di groupe Futur Média mën naa leen lim benn par benn parce que ñoom ñëpp euh, ñoo am seen ay teranga gis ni ñun at bu jot ñu def concept bu tudd teranga Sénégal ñu indi seen ay teranga def quoi rokki mi rokka donc ñu ngi gërëm bu baax sumari euh, sumari.com nga xam ni nag ñoom dañuy dox euh, ci lépp loo xamante ni jëm na ci vente en ligne sumari.com euh, actuellement mu ngi def feu et flamme ak Covid bi kenn bëggatul déplacé wu di dem ak rassemblement yeeg ñoom seen mais da ngay toog dem ci seen site internet immédiatement ñu jaay la par exemple tablette bi. voilà tablette bi par exemple mën ngeen koo am euh, sumari point com xam nga ñun nag euh, dañoo bëgg lool téléphone yi bees mais tablette bi euh, chair na à un point boo xamante ni ñoo ngi ko jëlee sumari point com et pourtant dañ leen koy may donc ñu ngi gërëm bu baax sumari ci partenariat wam ak groupe Futur Média ñu gërëm itam yeneen partenaires yi nga xamante ni ñoom ñoo ànd ak ñun jox ñu confiance bijouterie bu mag bi nga xamante ni mooy luxury bijouterie by Khadim Nia parure or bi maye nañ ko dimanche dernier regardez c'est tellement beau ki nga xamante ni moom lañu ko may dimanche bële euh, ñëw na bu ca kanamee ma jox ko ko euh, mu essayé ko ah euh, takk ko bu ko neexee mu yóbbu ko bu ko neexul mu delloo ma ko <laughs> maa mën a maye nag man dama lay may ba pare bu la neexee nga yóbbu bu la neexul nga delloo ma ko. voilà donc pariru or bi million wala ñaari million munu la ko may ñu ngi ko jëlee luxury bijouterie bay Khadim ñaa ñu koy gërëm ndax moom xale bu am jom la ba noppi itam li muy jaay ci ay bijoux ku ko am jël. ñu ngi gërëm tamit euh, yeneen partenaires yi euh, je prends tout est sur la table ah damay jël benn par benn euh, comme ça ma leen di gërëm parce que ñoom ñoo yeyoo jërëjëf gi prestige déco barki Dembo Ndiaye lañu fi maye salon cuir bu rafet ak yemu àndal table beeg accessoires yi ñoom bibeloo bibeloo xaw ma vase façon ma mère elle dit biblo euh, donc yooyu yëpp dañ koo may euh, sunu benn xaritu euh, téléspectateur mu kontaan ci lool donc ñu ngi gërëm prestige déco nga xam ni Sénégal toll na foo xamante ni léegi ñëpp bëgg lu baax kër goo dugg seen wàññee dàq salon yi doucier gën a neex saali donc du coup ku nekk da nga bëgg lu baax et tout ça euh, mën ngeen ko am fi nga xamee ni euh, moo di euh, prestige déco donc prestige déco ñu ngi koy gërëm bu baax ci partenariat ak groupe Futur Média gërëm tamit CSB xam nga nag CSB showroom bi am na bu nekk par exemple cité Kër Góor gi et que actuellement dafa am téléphone boo xamee ni yéen ñëpp bëgg ngeen ko muy S20 bi nag. Euh, moom laay xool nii de moom lay xool nii ci euh, ci ruq bi waaw moom lay xool ni ci ruq bi pour wax leen ni bu ngeen bëggee s par exemple euh, mën ngeen ko am fi nga xamante ni moo di euh, jili euh, CSB foofu CSB bu ngeen fa demee di ngeen am Samsung yi gën a baax moo xam téléviseur moo xam réfrigérateur mais actuellement ñu ngi nekk promo ak s bi day on va vous montrer tout li nga xamante ni moom la CSB di jagleel ay clientam parce que ñoom itam ñoom ñoo def confiance groupe Futur Média xam nga dimanche yi da ngay jékki-jékki rek paire per perdre les pédales voilà neex-neexu samedi noppalu dimanche on a envie de rien faire moo tax xam nga dangay ngay jékki rek xel mi dem quoi ñuy gërëm tamit wave wave mi nga xamante ni montant bi ma leen di may léegi nii nu mu mën ci toll un million cinq cent deux cent mille cent mille euh, bu ngeen duggee ba tànn région bi leen neex lu ngeen fa fekk ci xaalis immédiatement dañ leen koy wave donc wave tamit euh, ñu ngi koy gërëm bu baax defe naa pare ngeen euh, pour ñu tàmbali teranga Sénégal ci grand maye bi tey c'est le grand maye le grand maye nag le grand maye yu bëri ngeen di am mën naa ci wax leen am na ci région boo xamante ni 500000 la nga fa tey am na ci région boo xamante ni 1 million mu ngi foofu am na ci région boo xamante ni 200000 mu ngi foofu am na ci région boo xamante ni euh, téléviseur mu ngi foofu oui téléviseur bi xaaral ma woon leen ko regardez lii. téléviseur la boo xamante ni smart TV la c'est-à-dire actuellement euh, mooy télé yi xew boo ko amee sa kër da nga koy utiliser comme téléphone portable mën nga am Netflix mën nga am YouTube euh, mën nga ci connecté wu ci réseaux sociaux yi Facebook par exemple alors gis ngeen télé bi télécommande am sax dafa design donc bii dañ koy maye tey am na région boo xamante ni télé bi yëfa ne bu ngeen ko tànnee ba fekk fa télé bi immédiatement dañ leen koy may te pareeguma parce que tey c'est le grand maye gis nga tablette bi ma leen ni un million mayu leen ko te ñu jëlee ko sumari point com am na région boo xamante ni tablette bii mu ngi fa donc tablette bii euh, à vous kan moo ci nara daal je sais mais am na région boo xamante ni tablette bii mu ngi fa tablette Samsung la euh, di Galaxy Tab A c'est tellement euh, c'est clean ku nekk war na koo mën a am donc am na région boo xamante ni foofu la nekk am na ñu itam ay iPhone 12 Pro Max n'est-ce pas un million et quelques ça coûte mais nous on offre ça et on vous attend am ngeen possibilité itam comme vous le voyez euh, nii ci ci ci écran bi yéen ñi nekk Facebook oui mën ngeen cee bokk mais nag yéen li tax seen bos neex mooy du ma leen sonal ay tànn leen région ak ay maye leen lii ak ay voilà dama naan damay damay xool parmi yéen ñii seetaan à travers. Euh, Facebook live par exemple bu télévision Futur Média vos commentaires et vos cœurs et vos cœurs euh, moom laay gis nii comme disait Ndella Madior Diouf dama doyal ci loolu je veux des cœurs donc ces cœurs là que je vois bu ca kanamee dina am ay internautes yoo xamante ni bu ma leen tànnee euh, dañ leen di may directement jox leen seen wàll ci enveloppe yi ñuy séddale wàll yooyu nag mën na nekk cinquante mille mën na nekk cent mille comme mën na nekk deux cent mille ça dépendra de mes humeurs maintenant nag bu ngeen pare man en tout cas pare naa c'est parti c'est le grand mail du dimanche allez kan moo ci nara dal te nag maay booy daf ma fan quoi parce que ni ma ñëwee tey noir blanc bi la ma la ma fan quoi maay booy Aboulaye le petit réalisateur là il fan de moi mais bon écoute euh, tu sais il a des jours je ressemble à un boy yenn saa yi je ressemble à un vieux de temps en temps je pas yenn saa yi nag ma nekk euh, BCBG de temps en temps am ci ay jours yoo xamante ni nag may Ali Bata Mbuub ab géwél pire lay doon voilà il des jours comme ça dama bëri rap. yenn saa yi Paul ñëw yenn saa yi Cuppuru ñëw yenn saa yi Massamba Kokki ñëw de temps en temps nag écoute c'est Paul qui vient quoi BJ je parlerai de cette marque tout à l'heure c'est une marque euh, créée par un jeune et puis dañu bokk gis-gis live in your job il faut croire son à son travail quoi di liggéey dimanche liggéey samedi te bañ a mel ni euh, Pape Samba Thiam mi nga xamante ni bu liggéey lundi porté malade mardi fu ne mu dem fa wut euh, repos médical xaw ma xam nga y a des médecins de quartier nga xam ni ñoom boo leen joxee 2500 rek ñu defal la xool repos mi arrêt maladie deux ans <laughs> waaye xamu leen bàkkaar boobu sax on n'est pas là pour de des leçons kan moo nara a njëkk dugg carte bi de seey na ah ñëwaat na merci beaucoup Eva Eva yaa ngi may tapas de mbat da ngaa bëgg laa mbat sama dënn <laughs> Eva bi nga xamante ni moo yore machine bi ci ginnaaw sama doom jol sama doom la joo xamante ni yenn saa yi ma teral ko teral ko yenn saa yi ma ne ko kaay làmb dënn bi xol bi sedd comme laaj ma ko ko dimanche dernier tey itam du ko ko du ma ko ko laajaat moo tax mu afasal carte bi bu dee da may tappaas nag yaa ngi tappaas koo xam ni bu la écarté lee de di nga bàyyi carte bi ci écran bi parce que je dois prendre tout de suite téléspectateurs yi nga xamante ni ñoom ñooy woote séddale nag taamu naa ci kudd yu njëkk yi ma may leen quelque minutes wala quelques secondes le temps ngeen composé benn ci numéro téléphone yi affiché wu ci suufu écran bi Malimaat 88 628 20 vingt tey kii njëkk a dugg <laughs> yeah téléphone téléphone téléphone téléphone téléphone téléphone Amina bëgg naa ko ba pare bu ma ko gëjee gis sax xam leen ni xalimaa fa jaar ndax nit ñi bàyyiwuñu kenn ànd waaye bëgg naa ko ba pare téléphone téléphone téléphone téléphone téléphone ban téléspectateur mooy njëkk a dugg téléspectateur wala internaute whatever en tout cas ci yéen la dépendre 88 628 20 20 wala 88 628 76 76 ak nu montant bi mën ci toll fi ngeen toog ngeen di toog moo weevu leen ko même bu fekkee 1 million laay maye tey parce que tey c'est le grand maye bu dee nag ay paris yu rek loo xam ne dañ koy téye da nga koy ñëw jël si par exemple ki nga xamante ni dimanche dernier may naa ko paris ru or elle est derrière. dañ koy nettoyer ba pare nettoyer xaw ma désinfecté parce que léegi jamono neexul ku la seet si nga nettoyer ko saa yi day ñëw sa kër sax nga koy pompe te man sama yaay dafa bëri histoire des fois ngi dama koy tapaas te tapaasuma ko jamono neexul mag la te feebar baa ngi yóbbu mag ñi waaye saa yi ma ko pompé rek mu ne ma dama laa jur ba nga toll nii loo may pompé musuma laa pompé <laughs> ma ne ko dinaa la pompe de <laughs> prenez bien soin de de parce que jamono neexul n'oubliez pas de porter vos masques et puis di désinfecté wu parce que affaire bi dafa yàgg ba nga xamante ne ñun ñëpp dañoo lase wu dañoo dem ba masque yi soof ñu donc koy takk doo sax mën a noyyi mais bon faisons con faisons confiance aux experts comme ñoom ñoo xam te ñoom ñoo ñu wax nanu def te xaar fu war nent di mu jékki gëtëm 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 wala 88 628 20 20 numéro bu baax la aussi j'ai j'ai d'autres numéros de téléphone ah xam ngeen lu tax ma créé ay numéro yu bees parce que affaire bi day waaj a jeex Teranga Sénégal on a encore quelques semaines février bii lañ ko bëgg a jeexal donc on a créé d'autres numéros de téléphone yoo xamante ni daf leen di permettre yéen fu ngeen ñu lamb rek daj ñu parce que yenn saa ngeen foog ni Sénégal Dakar kese lay am mais ak région bu ngeen mënti doon au fin fond du Sénégal parce que ku ne xam ne ni TFM c'est comme euh, mooy télévision nationale bu Sénégal voilà

voilà joxe nañu iPhone joxe nañu salon maye nañu Samsung Fold bi joxe nañu benn parure bo parure baa ngi nii demagul ki ko jëlsee see ngi ne moom gëmu sax yàlla dafa teel a ñëw moo ma fi jiitu musuma gis loolu jili boo ma ko bëggee woon wan ma ko ne mu ngi ne toog waaye dama koo sewal bi ma ko rombee nuyu ma ko sax parce que gëmul yàlla am na ñoo xam ne gëmuñu yàlla yow may nañ la parure doo bàyyi ba ki koy def ñëw mais moo ma fi jiitu 10 heures ci suba la ñëw <laughs> ma toog añ sama suppu kànja bu mel ni jàmm doog a yegg si regardez elle waaye sañ naa sàcc jaaro or bi de yóbbu ko lal wurus def ko xaalis mais est dina ma jig sax parure la de rafet na de on offre ça tout suite allez premier téléspectateur bi laa bëgg a jël téléphone téléphone téléphone téléphone Amina Poté sax dafa pata moom bu naan téléphone xam nga comme pata la koy waxee téléphone téléphone téléphone téléphone téléphone téléphone parce que pata puuf la mbuxuri mais man dama koy def mu neex téléphone téléphone téléphone téléphone téléphone téléphone <laughs> xam naa mu ngi seetaan di tontu waaye ci loo ma wax ak yow tey la dimanche et dimanche on fait ce qu'on veut Top Apulaay allo. allo. kooku. waaw man la Pape Cheikh. yow la Pape <laughs> ah parce que Pape Cheikh bi man rek maa ko moom de fii Sénégal. waaw waaw kon jëlal boobu. fais très attention en mon nom il faut pas l'utiliser n'importe où. <laughs> ça va. ça va alhamdulilah. naka naka naka bi. ça va ça se passe ñu ngi noppalu. aj nga ba pare quoi toog relax. waaw waaw toog relax doon seetaan euh, Teranga Sénégal. c'est bien yaa ngi doon seetaan Teranga Sénégal. mais avant Teranga Sénégal kii buubu mu ngi yeboon maire boobu ci oto bi. waaw waaw man kay seetaan. mais dégg mais dégg li ma maire bi waxal yëpp. <laughs> wala suivre parti boobu. non boobu dama kàr. soxor suñ may wax lu baax doo ko déglu bu doon safaan la dégg nga ko bu yàgg yow mii xam naa la noo tudd gaawal maa ngi tudd Souleymane Dieng. bu doon lu grave la maire bi wax ci man Sénégal yëpp dañ koy yëg mais fi mu ne nii koo laaj mu ne la non c'est pas je pas regardé cette partie <laughs> Jules. non pas cher. mon ami Jules tu appelles d'où. j'appelle de Kër Massar. tu appelles de Kër Massar fan ci Kër Massar ngay wootee Jules. Euh, maa ngi cité Aynou Mahdi. yaa ngi cité Aynou Mahdi. waaw Aynou Mahdi un deux trois. Euh, bon bon bu ma la waxee réer de. ah man de man tamit damay jaay ngéwéle rek de damaa jàpp ni am na un dara leeruma ci vérifier Souleymane alors naka waa Kër Massar mbaa yéen a ngi ci jàmm rek. ça ah, super yow daal da nga bëggoon ñu may la ci teraanga yi. waaw bëggoon parce que c'est le grand maye. waaw ah, c'est mais lan moo nekk soxol téléviseur bi un million deux million lan lan vraiment nga nga am yéene ñu may la ko tey parce que du lu ñuy gagné. waaw ah un million. un million. waaw bëri na de noo sant. Diène. Souleymane Diène. waaw Diène borom kaay. waaw borom kaay bon mais dañooy wax xaay quoi mais nous autres ñun tubaab bi kaay la ñuy wax à kaay. <laughs> allez ban région ngay tànn d'abord. Euh, ma tànn Ziguinchor. Ziguinchor. waaw Eva on lui sort la région de Ziguinchor de la carte. Souleymane donc ñu ngi lay génne génneel région de Ziguinchor ci carte bi ñu ngi lay li région de Ziguinchor ci carte bi donc région de Ziguinchor Ziguinchor a ngi nii Souleymane lan moo tax nga tànn région de Ziguinchor. bon parce que dama ko mu neex ma trop ma bëgg fa dellu bon ça m'a marqué quoi. la bon eh, est-ce que xam nga ni am na koo xamante ni bi teraanga Sénégal doog a commencé mayoon naa ko billet Dakar Ziguinchor. nga ne ma. mais dama ko gisul boobu ba tey man damay ragal mu foog ni sama wax ji bër la mais naa la lijjantil xam nga trans xam nga Transair Transair compagnie aérienne la buy dem Ziguinchor naa la lijjantil billet foofu dégg nga. d'accord voilà donc si tu es prêt on va décompter la région de Ziguinchor. je suis parti. 5 4 3 2 Souleymane. cent 200000 moo nekkoon région de Ziguinchor Souleymane 200000. wow wow 200000 Souleymane. Souleymane yaa bëri deux cent 200000 moo nekkoon région de Ziguinchor waaw. yow no def ba xam ne mille daf fay ne wala lu baax nga fay am. ah yaakaar rek. mais Souleymane yow da nga de. mais yow booy yow naan te nga de yow ah. pop pop pop pop écoute xaaral ma wave la ko léegi est-ce que am nga wave. m maa ngi wave. ok am nga application bi. waaw am na application. super attends je te sors ça comme ça tu vas ton argent tout de suite deux cent mille. deux cent mille baax na de Souleymane. loo añee tey sax. Euh, tey moom madame toogal na ma ceebu yàpp yow fuy nga de nga ay heure mais Souleymane yaa fuy heure ba dem toogal man tey sama sama sama ma bonne toggal na ma euh, suppu kanja bu neex quand même. non mais maa dàqale. waaw ah, bon écoute euh, voilà je te le concède ah. <laughs> allez léegi maa ngi euh, naa ba pare xoolal ndax jot nga deux cent mille yi. waaw jot naa ko ñëw na de. mais kañ ngay lire message bi nag. ah maa ngi nii xaaral ma wax la. wax ma gaaw non en fait jotaguma message mais application. bi oui parce que parce que xam nga li li pratique ci application bi mooy même boo jotul message boo diggee ci application bi di nga mën a xam ñaata nga jot. exactement. boobee je suis content est-ce que tu es content. kontaan naa trop Pape Cheikh. si tu n'es pas content ma nangu sama 200000 ah. léegi kontaan naa ba. <laughs> allez nuyul ñu madame Diène et bon dimanche à vous. suñ ko rappel quand tu mais eh franchement nag franchement nag bokkuñu ci des fois damay bañ a wax sax parce que su ma waxee rek mën ngeen foog ni li may liggéey TFM moo tax mais man jaar naa télé yëpp fépp sauf télé Sidi Lamine Niass. mais jaar na fépp fépp fépp fépp fépp mais franchement franchement c'est-à-dire nous qui sommes là dañ leen di bégal ba dañ koy yëg xam nga lu jógewul ci xol euh, di dem ci xol euh, kiy jot li ci xol bi bon c'est compliqué li may bëgg a wax woote leen ma jox leen ci xaalis bi <laughs> yenn saa yi kat ma bëgg a ngéwéle mel ni ñuy wax ci thème yi waaye du ma ko mën mais bon on laa là euh, je xam nga CSB jili CSB euh, moom daf ñuy accompagner te euh, CSB wax dëgg yàlla daa bëri ay showroom yi fi nekk ay ay ay ñu dul sénégalais moom ko te man damaa bëgg yi fi Sénégal S21 bi nag Samsung la boo xamante ni bu ngeen demee di ngeen ko fa am naa leen woon léegi nii euh, li nga xamante ni mooy s bi parce que CSB quand même wax dëgg yàlla moom ma gënal Rima quoi Rima benn xale rek buy góorgóorlu di jaay ay téléphone nii quoi amul amul showroom <laughs> mais mairie Manche t'embrasse mais CSB bu ngeen fa demee regarder euh, ci showroom bi nekk par exemple euh, cité Kër Góor gi S21 Ultra bii bees S21 la tudd Samsung boobu S21 ah S21 bi xam nga li ma ci neex mooy xam naa ni bu may paree ci émission bi rek jiil euh, yow jiili yow jiili yow mii filmé tam jiili nga tudd mais sa gël yaa ngi may juumloo parce que su ma nee Djily damay foog ni yow laay waxal jili Diémé jili sëggal bu ma gis sa kanam bi s'il te plaît voilà je parle de Djily CSB voilà foofu bu ngeen fa demee mën ngeen fa fekk S21 et S21 bii nii Djily xam naa dinañu ko indil dimanche prochain Djily je te l'impose indil ñu S21 bi ñu won ko téléspectateur yi dugal ko ci benn région may ko benn téléspectateur bu ko defee sénégalais yëpp bàbbeeku ñëw CSB ca showroom ba allez Aboulaye ma téléphone ma mayaat leen quelques secondes 88 628 04 05 regardez 200 000 mooy enveloppe bi ñu njëkk a joxe tey ci grand maye la xale ba ne woon semaine bi yëpp courte manche ngay sol waaye dimanche ngay def longue manche bah oui parce que mën naa maye 100 000 mën naa maye 75 000 mais dimanche yi exceptionnellement lu gën a néew néew ba néew maanaam bu néewee ba néew daal 200 000 lay maye voilà donc euh, donnez-moi wala je vous donne quelques secondes le temps ngeen composé benn ci numéro de téléphone yi yaa ngi xool période bi rek waa kii te ñu ko jox lii moom balaa mu ñuy lekk kaay sama xarit la nag de pourtant kaay kaay chéri viens ici si amour viens viens viens viens du ma a jege parce que distanciation bi naa ko respecté xaw ma foo jóge xaw fan laa jóge te man temps yi maa ngi ci yu ne kaay toog nii rek viens waala ah merci beaucoup Eva Eva yaa ma bëgg nag. merci ma petite Eva viens ma puce il faut qu'on me rappelle ton parce que man mag laa léegi depuis dimanche dernier fàtte naa tur bi Liliane wax nga dëgg Liliane Liliane ma la doon woowee Lili ma petite Lili xam nga masque yi nag li ci mooy nit mën na laa ree doo ko wax doo xam ne reetaan na la ko pour pour man Lili dafa ñàngal mais Lili mu ngi may reetaan assis-toi Lili tu as un joli nom t'inquiète pas kenn du la xàmmee gis nga ak maski mën nga cee dugg fu la neex. fi mu ne nii kenn du la woo naan la gis naa la téléphone jox ma sama jox gis naa la TFM jox ma sama wàll ci parure bi voilà tu peux tenir le micro comme ça soo bëggee ñu toog waxtaan tuuti ah wala nga yàkkamti waaw toogal tuuti li yaat lan moo tax nga yaru nii mun nga yëkkati micro bi comme ça ñu lay dégg ça va. ça va bien. comment tu as pour ñu may la parure bi. bon comme tout le monde j'ai appelé. Ouais. ah oui j'ai gagné. Ouais. oui c'est tout et tu mais man j'ai vu que depuis nga ñëw yaa ngi xool période bi Liliane lan moo la dal pour yow duñ la ko jox. ah aw ma dara xool ko. mais yow gëmoo yàlla parce que yaa xooluma woon période xoolaale iPhone bi. <laughs> mais defal ni nga def ba ñu may la parure bi def ko boo ko defee am am téléphone bi ah c'est possible ah <laughs> voilà ay ca vérifier bu la neexee su matul rek nga delloo ma xool ndax jëloo jaarale ko jëluma ci dara je te jëluma dara xoola jaaro nopp yaa ngi nii jaaro baaraam baa ngi nii chaîne baa ngi tu connais chaîne non non chaîne ah chaîne voilà ah. la chaîne okay. les boucles mhm, et la, la bague et, et, la, et la petite bague ok voilà c'est trop joli waaw wax ñu lu baax nag parure or quand même c'est trop cher hein quand même remercie-moi ma xol je te remercie Prie toi je oui. remercie TFM aussi ouais. euh, groupe Futur bon mais ça c'est pour toi tu habites où encore que Mbour xam nga ci Thiès la bokk. xam nga lu ma lay wax boo teelul dem de boo demee ba ci yoon bi 21h la fa. non mën naa la woo. dinañ rek parure bii de. mënuma la woo nga ma. Hmm? mën naa la woo nga wax ak gars yi ñu baal ma. waaw léegi xam nga lu may def ak yow dama bëgg nga gaaw yegg Mbour jëla parure bi nga xool. léegi dama lay wéef léegi vingt millions passé xanaa du maa baax. ëpp na rétuwoo ma xamee de. <laughs> cas bi daal xam nga nu mu demee man daal dama lay wéef léegi vingt mille maa riis nag. eh ku la wax loo macha allah waaye yéen du ngeen ma bàyyi ma catu sama bopp maa moom sama cat. eh Eva arrête de faire genre. et fais genre kay man maa ngi wax sama mu ma mais mel ni Mado yow lan mooy seen yoon ci sama cat man bàyyi ma voilà. maa baax nag barki yonent bi léegi attends je te je léegi nii vingt mille tu vas recevoir vingt mille dans ton téléphone baax na nag pour passe. waaw Dakar Mbour soriwul na sax. bëri na kay. yii nii kër am nu mu tudd yooyu noonu ñuy woo par fajar yow jili xam nga oto yooyu. allo Dakar yooyu dama leen defal publicité wala leen woowee ñu yóbbu la Mbour. Hmm. allo taxi xaw ma allo Dakar tu peux les appeler. wala nga jël sa benn taxi dem. Paris nga yore wóorul. wóorul Dakar Mbour quinze mille nga dem. jël sa cinq mille yi jënd ci sëriñ voilà Adama Wave la vérifier sa téléphone léegi. vingt mille francs c'est ce que je vais te donner léegi nii. et est-ce que xam nga ni Galaxy euh, Samsung Galaxy S21 bi. Mhm. dama la ko doon waaj may. Samsung bu bees bi mooy S21 de moo mujjee génn ni de. bi mujjee génn ni S21 ma may la ah, may ma bëgg nga ko sérieux bëgg naa ko bu bees bi bien sûr waaw boo ko bëggee ji li da koy jaay dangay ngay dem CSB bi nekk fële si te kër góor gi boo ko demee di nga ko fa jënd non iPhone bi waaw mais dañ koy jaay fépp non non iPhone bi daal boo demee dinañ ko jaay <laughs> no mun nga woote merci Liliane kontaan naa tu as envie de faire une dédicace non ça ah? sa téléphone ndax jot nga vingt mille yi ah tu l'as moom la ñuy woo kan moo koy woo c'est ta mère qui c'est ta c'est ah mais amène téléphone viens viens y a pas de souci viens viens sur le plateau viens kenn du la xàmme yaa masque ngeen sol amul problème sa yaay rek moo leen di xàmme ah sa la. bonjour maman de Liliane. non c'est maman de. allo. allo. tu as ñu ngi fii ci télé bi ak man allo. ah réseau bi réseau bi baaxul regarde xoolal ndax mes ndax vingt mille yi jot na ko léegi nii parce que wéef naa ko vingt mille c'est c'est mm. téléphone bii la wala ban téléphone sa numéro téléphone bi ñu la woowee c'est c'est ce numéro là vérifie normalement tu dois recevoir vingt mille yoo xamante ni mën nga dem euh, pour passer ko Dakar Mbour plus parure parure bii ñu la may quoi ah d'accord waaw da ngeen di gaaw nag daa am ñu bëgg am pari <laughs> ah, ngeen mel na ñu nekk seen kër moi je mets tellement les gens à l'aise que vous avez l'impression que vous êtes chez la d'accord la prochaine fois quand vous venez ici. Mhm. restez attendez-moi ah. <laughs> dama leen di xamal allez sans vérifier léegi mu ñëw maman mooy woote waat maman xanaa xanaa xamul ñu ngi def émission en direct. Eh. allo maman de Liliane. oui. gis nga sa doom yi ci télé bi. gis naa ko gis naa ko. elles sont jolies et gentilles sa doom ko moom yéen a ko moom. amin amin amiin waay ñun tam war nañ non lii du gagné dañ koy maye faites comme Liliane appelez et on vous offre. a pas de souci eh, xale yi mbaa ñu ngi dem église. ah bu ngeen demee dimanche prochain da ngeen ma taalal bougie de. amul ba pare xale yi bu ñu leen bu leen mayaatee dara buy ñëw nga mayaale leen eau bénite ñu indil ma. ma muslu ci ñii nii di ma xool nii ma wis leen eau bénite <laughs> merci. merci à xale yi jox naa leen paas nag bu leen gisul d'ici une heure de temps rek ni jàdd nañu. <laughs> Euh, macha allah macha allah merci. voilà. merci Liliane. toi comment tu t'appelles. Espé. Estelle. ah Estelle yow yaa dàqale lilian tout en plus. Estelle Liliane merci nuyu leen ma papa ak maman dégg nga à bientôt voilà donc Liliane la ñu may euh, parure bi et puis elle est venue prendre ça sa maman qui est très contente lii mooy wane ni euh, dimanche yi on est tous en famille euh, di seetaan télévision Futur Média may def le grand maye alors grand maye bi nag c'est pour vous je rappelle encore numéro de téléphone yi ay ca ma leen quelques secondes le temps ngeen yegg si allez

wala 88 628 22 22 ban téléspectateur moo nar a dalaat moo ci nar a dalaat ba am 200 000 par exemple regardez 200 000 la ñu fekk région de Ziguinchor Top Aboulaye allo. allo. oui. Pape Cheikh. kooka la. man la Bousso. waa Bousso Bali. moo def. ça va ma petite. dafa nga mu joué. fii du joué de boo bëggee joué da ngay woote Lonase. waaw. fii TFM la dañuy maye. waaw d'accord. Bousso nan nga Bousso nan nga sant. Bousso Sall. Bousso Sall waaw d'accord du ma la téye lu yàgg dégg mais t'inquiète pas même bu fekkee. sa waa xaaral même bu sa crédit jeexee dinaa la rappeler dégg nga da tuddal yàlla. waxal yàlla tiif kon waxal yàlla tiif. yàlla tuddal yàlla tuddal yàlla dalal. waaw kay même bu crédit bi jeexee naa la rappeler parce que am naa sa numéro de téléphone. waaw waaw Pape Cheikh dugal ma. voilà ba pare yow soxna jaara lañ la tudde waaw damaa am damaa sonn. da ngay am soxna Baali Muntaxa mi nga xamante ni moom la ñu fayee maamam moom dina la ñaanal parce que yenn a bokk turandoo képp ku tudd soxna jaara doo am lu la jaaxal. da ngaa war a am. bul jooy de de nga. damaa gaaw a waa jooyal ma xool. comme danga bëgg ay jooy ah yow dugal naa la nee naa la même boo coupé mu dugalaat la. waaw dugal la. Baali gëmal yàlla. gëm naa waxal yàlla tiif. yàlla <laughs> waa tànnal région du la téye lu yàgg xaaral ma delloo Ziguinchor place am. merci ma mhm. petite Eva alors Bousso wax ma euh, ban région ngay tànn. Saint-Louis ok ñu génneel ko Saint-Louis gaaw parce que Bousso dafa yàkkamti. Saint-Louis voilà. Bousso. waaw Pape Cheikh. Bousso foo dëkkee. man Thiès laa dëkk. fan nga dëkk ci Thiès. man dixième. dixième d'accord Abdoulaye mu ne nga yokk sa jaf dafa jékki-jékki lëndëm daal jiili temps yi sa loxo baa du cata ci dugg ah bàyyi lii waay. allez Bousso donc région de Saint-Louis nga tànn. maa ngi lay bëgg i ibbil région de Saint-Louis loo fa mënti fekk nag. may borom. noo ko xamee. dama ko yàgg seetaan. <laughs> ku la ko wax. damaa miin lii dama ko de Saint-Louis parti Bousso. 5 4 3 2 1 Bousso téléviseur. téléviseur bi nekkoon ci région de Saint-Louis région de Saint-Louis. <laughs> eh Bousso. yow Bousso gis nga télé bu rëy bii nga ñu la may. aywa. kay lamb sama dënn bi. aywa. Eh, ba damaa kontaan damaa xam nga ni xam nga ni xam nga ni munoo weddi sama wax de. non dëgg la. Bousso xam nga télé bi ñaata lay jar maam jaar Bousso. ñaata lay jar wax cent dix. six millions. quatre. ay waay ay loolu. man de damaa jaaxle damaa kontaan. yow gis nga télé Pape Cheikh gis naa télé bi gis naa ko. yow xanaa da ngaa xamoon ni région bii nii dafa baax boo fa wootee di nga am lu baax. lii damaa bëgg Saint-Louis. damaa bëgg Saint-Louis. mës ngaa dem Saint-Louis. mës naa faa dem sama rakk yaay foofu la dëkk. fan la dëkk ci Saint-Louis tu connais ou tu connais pas. Pikine Pikine la ah Pikine d'accord léegi yow kon téléviseur bi yaa ko moom. maa ko moom maa moom télé bi. <laughs> Bousso yow de Bousso yaa ba <laughs> bàyyi ba bu ma catu. ba ba la <laughs> ma ne damaa tiit téléviseur. <laughs> bul tiit man la. kay. yow de bi ngay woote sànq ne nga sa crédit bëriwul waaye mujj nga am crédit de Bousso. yii damaa mujjee am crédit nag mujjee <laughs> man de Bousso damaa tiit ba tey waaye xanaa télé bi dama la koy wéef. yii doomu ko wéef dama koy jël. ñëw jël sa yëf kay xoolal sa télécommande. Bousso xoolal sa télécommande xoolal sa télécommande xoolal xoolal sa télécommande allez. xoolal sa télécommande yow. gis naa ko. sa télécommande rek comme téléphone regarde. yii gis naa ko j'ai vu. waaw et puis xam nga télé bi da ciy jàpp YouTube da nga ciy jàpp Netflix da nga ciy. smart la Samsung la bu baax bi ma nga jili CSB boo demee am nga fa ñaw. te eh, bi la. Bousso. <laughs> Bousso Bousso est-ce xam nga ni bëgg naa la ba pare. waxaatal ma ñaw ma xool sama xol bi day sedd. ñaw loolu. <laughs> Bousso yow Bousso dama bëgg dama bëgg ñu nekk ay xarit ñuy fréquentante. amul waxaat ma waxaat ma ñaw ma xool. waaw waaw. <laughs> <laughs> allez Bousso félicitations yow xanaa tey li nga añee dafa baax. waa tey ceebu ginaar laa baax na de. Mm-hmm, dama koo bëgg. poulet poulet ginaaru fii. yii koo bëgg waaw. loo toog ginaaru fii waaw moo jara togg de ginaaru fii. da ngay wér. félicitations Bousso. bi yow yaa ko moom c'est pour toi bëgguma la bàyyi sax parce que lii dafa rëy en fait donc. Euh, euh mais bëgguma mais bëgguma jeexal sa crédit quoi Bousso. waaw kontaan nga. li baaba ma li waykat ba ne woon jaarandaame jaarandaame jaarandaame télé baa ngi nii buso mbaa kontaan nga. mbaa kontaan nga <laughs> mayaat ma ñaw ma xool. waaw <laughs> buso moo wanaat na sa télé bi regarde regarde encore sa télé bi xoola. ay pare dafa rafet yéen seen télé xam naa seen kër xam naa télé bu ndaw a fa billaay changé boobu de sànni leen ko ci mbalit bi. maa la ko yow bii télé. man maa ko gën a ragal ñaw. xoolal lii <laughs> fexe nag na ngeen fexe nag ba bu télé bi ñëwee ba ngeen installé ko bu ngeen ci seetaanee beneen télé du leen dig sax. yii du ñu dig. est-ce que xam nga ni xam nga nii ma la ko nii ko mayee nii bu ngeen ci seetaanee beneen télé beneen télé bu jàpp tele bi day lakk. TFM rek laay boo laalee leneen rek. laal di laalaake. yow daal mun fexe ba bu télé maa ngi lay xaar jàppal beneen télé seet. non non mel ni jànjaari dégg daw. waxaatal ñaw ma ñu tàggatoo. <laughs> ay ca këppal. à dimanche prochain tu viendras prendre ta télé. d'accord y a pas de souci. bisous Bousso. merci au revoir. <laughs> Bousso kontaan na ndeysaan yow tam télé bii rek xanaa man Ndiogu Afia sax bëgg naa ci. mais moom am na ko et c'est c'est super am na bu mel nii bu ma euh, CSB livré bu rafet sax xam nga télé yi moom dëgg-dëgg ba ca gën a ndaw sax boo ko amee ci sa kër euh, sa xel dafay dal voilà donc c'est pour euh, Bousso mi nga xamante ni moo woote léegi te man ku bëgg maam jaara Bousso ma bëgg la ndax soxna Baali Muntaxa sama yaay sama bàjjan soxna Baali mi ñu dénk sëñ Muntaxa moom yàlla na fi yàgg te ànd ko wér Sëriñ Tuubaa soxna jaaraay yaayam te mooy sa turandoo Baali Muntaxa addi ak mu yàlla loo ci lekk mu rees ci laay nuru géwél nag <laughs> tu as compris Eva donc j'embrasse très fort suñu yaay jooju euh, nga xam ni euh, loxoom day ñëw xalaatam day ñëw ay ñaanam day ñëw euh, soxna Maguette Gueye jigéen ju baax jeey yaayam soxna mun Muntaxa moo tax ku ma dégg mu tudd Baali rek sama xol bi day sedd parce que boo demee Poroxaan maam jaara yëpp loxoom daf ci def ci dugal loxoom buuba bu yaboo nga sangoo garabu cat parce que tey émission bi nga def yépp neex na mais tey moo dàq tour avec yëpp neex na mais bu tey bi moom xaw ma da ngay saraxi cat xaw ma da ngay génne cinquante mille jox ko animateur bu rey Lamine buy liggéey dimanche après midi moo gën a rafet jox ma di mille de gàllaaj laa koy def buuba barki Serigne Touba li nga li nga li nga def tey ci télé bi buuba yow animateur yi sax yaa yaa leen gën a neexle émission. dégg yow yow li may ki ñu li mu wax juumul de. sama jikko rek la ma waxal nag. léegi indi dix mille ma jox la cinquante bi. Ah, ah, waa compteur bi pare wóoluwuma la jox ma wóoluwuma la de waa jox ma sa. non yow yow loolu boo ko defuloon. sa laa wax. dëgg la dëgg la si micro bi. waaw dafa am benn. Hmm. benn euh, loo xam ne da nga ko fi commencé. Hmm. ñëpp jël ko. dëgg la. ah dëgg la te loolu il faut ñu reconnaître ko. dëgg la hmm. dëgg la ñun dañu doon déglu rajo yi. waaye tey jii nii cinquante mille Pape Cheikh Diallo am na. dëgg la loolu fierté la. woo maa ngi joxe sax ma joxaat la cinq dix mille yaa ma joxaat la non yàlla tere xanaa maa dof <laughs> c'était magnifique xam naa di ngeen ko am jeudi euh, mardi astafurlah mardi avant déclic mardi ay côté 20h45 euh, avant ñuy commencer déclic di ngeen am rediffusion euh, waxtaan bi am sànq ci diggante Adja Kinelam ak ki nga ni moo di Bouba Ndour Kinelam moom sama yaay la voilà moom dootuma wax ci moom quoi euh, Aboulaye c'est vrai que yeneen la ñu prévoiroon mais boo amee Kinelam tegal ñu ko bokk ma ma ma njukkal ko. ah parce que lim ma euh, lim ma bakk xam nga euh, ndaanaan la quoi mais dama nangu rek ni ndaanaan la ku du budul man keneen def ko Bouba Ndour itam di ku wàññil wàññil wàññil Bouba Ndour itam di ku euh, ñàkk ki ñaan voilà merci pour cette reconnaissance ndax xam naa léegi nii laay doxe dindi ma waa Facebook yi ma xool apu dindi apu allo Malick voilà xam naa léegi nii laay doxee. <laughs> allez remets les commentaires sur Facebook on va choisir dans quelques minutes euh, ci internautes yéen ñi nga xamante ni yéen a ñuy seetaan soit euh, ci Instagram live bi ci YouTube bi euh, wala sax ci page Facebook bi regardez tous vos commentaires et vos et vos cœurs en temps réel ci page Facebook bu télévision Futur Média dinañu tànn ay internautes bu ca kanamee tuuti mais on va continuer ak yéen regardez benn téléviseur moo nekkoon ci région de Saint-Louis Mame Diarra mi moom lañ ko may on est tellement content et fier le temps ngeen composé benn euh, ci numéro téléphone yi nga xamante ni ñu ngi affiché wu euh, ci euh, suufu écran bi ayca 88 628 20 30 Adja Kine Lam mooy woy noonu ci suuf woy bi nañ ko déglu parce que daf ci woy ku baax a Alaaji Omar Sy mi ñu dénk Adja Amin Aminta Fall mu xarjata faal mu yëli manel faal voilà kooku nag euh, mooy wujju euh, kuti faal ndeela ndeela mu shérif mbokk ndeyam ki ne faal fii ci mamel euh, ndeela ñu ngi lay béggee bu baax xam naa ne yow it kenn gënu laa nekk chéri alaaji Omar si te suma rakk la donc nañ ko bëggal léegi ak woy bi nga xamante ni keroog la génn ba mu génnee nag ba tey ki ne laa ma ngi wane ni musique tradi moderne bi il faut ñu koy déglu c'est vrai que yëpp neex na mais yii itam dafay gën a neexal bis quoi ñu jëlaat beneen téléspectateur 88 628 22 22 wala 88 628 04 cinq xaaral ma xool leen ci Facebook bi Bouba Ndour ñaari junni yi moom a may gàllaaj laa koy def Eva xamoo ko mën a ëw waaw kay Pape Mor yaa wax loolu ah <laughs> daw na dañoo rus Bouba Ndour waaye bu ci ginnaaw Bouba. lu leen neex lañ koy wax non TFM mooy miroir du Sénégal nag li ñuy yàq buuba ak njaga waaye ku ci gis njaga eh, njaga eh, njaga eh, <laughs> gisee Pape Cissé eh grand Pape waaw ça va je les connais c'est vrai maak ñoom ñoo bokk groupe Sange ñooy jëwandoon ak ñun ñëpp maak ñoom yam yem de maa dàq jëw buuba dàq jëw njaga yuusu sax dama koy jëw yenn saa yi ma jëw Birane Pape Cissé mii barki démb rek ñu ngi koy jëw maak Eva <laughs> donc dix mille la ma may léegi dama koy ëwlu naa ko yóbbu ci paa paa kii nu mu tudd paa sow non non non non paa wañ sama benn paa wu lawbe la bu nekk fële boori marché Grand Dakar marché ngelaw la moom laa koy yóbbul mu ëwal ma ko parce que Bouba Ndour dix mille francs yi mu woo may yàlla na ma jig si suis très clair dans mes propos maintenant ñu jëlaat leen ci téléphone yi wala ma xool aussi benn internaute oui pourquoi pas xam nga nag li neex pour internautes yi dama leen di woo rek jox leen seen wàll voilà dama leen di jox seen wàll quoi la taasukat ba ne woon joxal naar wàllam ci takk gi boo joxul naar wàllam ci takk gi allez je vois kii kan la Binta Ndiaye ah am na ku ma gis de ñoom Oumy Diallo ñoom Mama Gueye ñoom Binta ah je vois plein de gens sur Facebook waaw kon yéen eh yéen ñii seetaan face télé bi ci Facebook bëri ngeen de. Wow, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Ouh là là. Allez, je choisis. ma tànn benn téléspectateur d'accord benn internaute plutôt allez Apulaay maa ngi lay transférer numéro bi comme ça ma woo ko ma woo ko et eh, Samsung Galaxy S21 bi dina ñëw dimanche prochain de ci CSB lay jógee bu ngeen ko bëggee dem leen ci showroom bi nekk euh, cité kër góor gi voilà allez voilà euh, defe naa téléphone am mu ngi sonné xaaral ma xaar téléphone téléphone téléphone téléphone téléphone téléphone téléphone voilà elle décroché na nii apparemment allo allo. allo oui. Binta. oui Pape Cheikh. waaye looy def Facebook ci Facebook bi ci suba ba léegi. damaa woote ba sonn jotuma leen. bi sa téléphone bi sonné muy man Tito. tiit naa <laughs> bu mu tiit nag dama lay mosal rek de. waaw. bu sa fit bi rëcc de dama lay mosal rek. waaw. léegi nag soo bëggee ci goroloo yi da ngay woote ba jot ñu. man maa gis ni li gën a rafet rek moo tax ma jox ma mooy ma jox leen seen wàll parce que xel baaxul. d'accord te xam naa ne sa xel bi yëpp ak sa bët yëpp teg nga ko ci yi ñuy maye. <laughs> fan nga dëkk Binta. yaa ngi dëkk Géejawaay fan ci Géejawaay nga dëkkee. amoo amoo. six amoo six. d'accord léegi xaaral ma wéef la xaaral ma wéef la ba dama lay mosal rek dinaa ko xeeb nag baay mu wéef la Eva ñu wéef ko ñu wéef ko ñaata cinquante mille wala. waaw baax na bàyyi mu wéef la cinquante mille jox la sa wàll rek. merci. allez xaaral ma wéef la léegi nii ne pas yow kay xaaral ma wéef la léegi nii xaaral léegi ma wéef la léegi léegi léegi léegi tout de suite ma wéef la cinquante mille sa wàll rek laa lay jox sa wàll rek sa rek laa lay jox sama téléphone bi de mu ngi mel ni centre d'appel. yàlla mi ñu tiim xam na ne du xaalis bi moom moo ko ba koy maye ndax bu ma amoon xaalis sama kër gën a laay toog waaye euh, service à valeur ajoutée ma yónni temps sax fa lañ ma affecté léegi nekkatuma service programme léegi agent Pape Cissé là voilà alors tu as reçu Binta. jot nga jot nga jot nga wave bi. non ah Binta bu ma tiiñal yow tamit yónnee naa la ko ba ma def opération réussie. ah ma xool am application bi xanaa. Binta. Binta. oui allô. Binta Ndiaye tu as reçu message. non non jotaguma mais danga am application bi. amoon naa ko mais amatuma ko léegi. ah loolu loolu loolu loolu waxi lan la yow looy mel ni Pawlish ni <laughs> waxi Pawlish yooyu pour lan la boo ko nee liggéey def la la mu ne waxi dof. waaye waxi dama ko you désinstallé the application. oui dama mais euh, Wave même bu dul Teranga Sénégal ak TFM Wave pour ñëpp la pour. même RTS. am ah, nañu Wave quoi voilà Wave ñëpp la donc bul ko jiiñ euh, bul ko jiiñ TFM quoi. waaw loolu dëgg léegi nga per espoir faf ñu rus loola woo te woote woo may la cinquante mille muy sa wàll xanaa yow xanaa xam nga. xam naa voilà merci donc cinquante mille yaa ko moom dégg nga. oui la félicitations c'est pour toi xam nga c'est ce qui est chouette dans Teranga Sénégal dafa am ñoo xamante ni dañu nekk ci internet bi di seetaan euh, Facebook wala Instagram di seetaan euh, émission bi donc ñoom bu dee mënuñuy jot en direct dinañ ci tànn quelques-uns euh, bu ko defee ñu jox leen seen wàll ci yi ñuy séddale muy ay enveloppe yu duun yoo xamante ni téléviseur ngeen fekk léegi nii ci région de Saint-Louis allez on va refaire du poté téléphone ma mayaat leen quelques secondes.

Euh, il faut que je remercie BJ ah Believe in your job ay xale la ñu yoo xamante ne actuellement ñu ngi entreprendre di créer ay marques c'est-à-dire les yére yi léegi soxlatul ngay dem di ko jënd ci ay tubaab quoi ya y a des jeunes qui sont là yuy entreprendre voilà donc BJ on va mettre euh, leur affiche dans quelques minutes balaa ñuy tàggatoo ak seen numéro de téléphone si vous voulez ci jogging yi ñu jaay leen ko xale yi ñu ngi góorgóorlu ah. j'ai même vu Drizzy Drizzy xam ngeen ko mu ngi toj réseaux sociaux yi Drizzy influenceur donc day préciser même Drizzy il a sa marque il y a Drizzy j'en porterai prochainement mais bon courage il beaucoup de jeunes plein d'autres jeunes yoo xamante ne actuellement ñu ngi góorgóorlu Amadou Wilson nga xam ni de temps en temps moom mooy choose yenn saa yi mu ne ma grand bi solal carax yi xam nga mais lu ma jox rek dina ma ko rey ak wax mais xale la bu buy jaay lu rafet quoi Wilson Wilson Market càmmiñal Ami Mané ñu ngi lay ñu ngi lay euh, ñu ngi lay encouragé Marie Louise Ndiaye mii liggéey fii sa journaliste yëg ngeen ni moom ma jaay daal yi Marie Louise waaye naa ko do am remerciement de da nga ma koo jaay affaire bi placement de produit la échange de marchandise rek moo ma jaay daal yi Marie Louise mbul observateur jabaru maître jabaru maître Cissé ji moom laa daan àndal ci déclic bi waaye bi ñu xamee ni kii baana baana la ci lañ ko ci génne parce que daan def bu déclic jeexee rek mu wàcce marchandise yi ci plateau bi c'est mon amour madame Cissé ale beneen téléspectateur léegi mi ñu jël ko ci 88 628 22 22 eh fàtte naa leen wax mbaa fàttewu leen ni le 13 le 13 février mooy veillu Saint-Valentin Saint-Valentin mooy sama anniversaire le 14 mais baal naa leen message yeeg borom xolu or beeg jamaa bi chaque année ngeen waxal ma ko te bu ngeen ma bëggee tooñ tooñ ma donc baal naa leen yooyu dama ne le 13 nag man ci laa koy célébrer te fi ma koy célébrer Gambie la tudd. Banjul benn salle bu mag bu tudd Pencami Hall xam ngeen. waaw waaw waaw waaw waaw waaw non en fait des fois doo bëgg a fecc parce que da nga naan mag nga voilà waroo écarté mais euh, Viviane ci boppam la kenn mënul muñ <laughs> mooy mooy artiste bu jigéen boo xamante ni kenn mënu ko muñ quoi ñun mënuñu ko muñ et je sais que yéen tamit mënuñu leen ko muñ euh, Sénégal bi mënuñu ko muñ donc rendez-vous le 13 euh, février le 13 defe naa ci ñoom ci seen làkk bi mooy 13 13 or 13 or on February. Yeah, I'm trying to speak English. Yo, my man. Yo, Mr. Amadou Jallo, how are you? The father of of of Daddy uh, and Sophia de nan la ñu waxee jëkkër de married yow mi sax xamuloo ko te yéen a en réalité les gens qui corrigent dégguñu sax làkk bi. dañuy foraatu rek maak ñoo ma yam parce que ñoo bokk école li ñuy jàngee missis xaw ma lan moo ma jàngaloon missis du ñuy jàngal anglais ci école yi missis lañ leen di tuddee missis quelque mais j'ai oublié mais euh, euh, the euh, yeah euh, Mr Amadou euh, jàngal ma anglais learn learn learn me oh, oh, English Yeah, thank you so speak English very well. Donc, uh, 13 on February, le 13 février, hein, uh, before the day of Valentine's Day. wop wop wop moom waroon naa ci gradué parce que nii ma ko lakkee dafa jub ba nga xamante ni heureusement ba maa ko gën a naa Amina Poté xam naa bu ñu àndee Gambie maa koy traduiral bu ko gars yi anglais rek ma ne ko lii ak lii la ñu wax te dinaa ko corrompre corrompre laa koy def yow maa dem Gambie dal ci hôtel bi. génn rek benn paa génn fekk ma ci hôtel bi ay suma doom mu ngi nii Pape Bodia maa la jur ma ne ko yow noo ma juree waaw sa yaay Ndey Mari Bodia ak faatu Sané ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoo la juróon après ñu sànni la bi ñu la sànnee ñu yobu la Sénégal man ma jekki jékki rek ma gis ci télé bi pap Pape Bodiang laal pap Pape Bodiang sama frère bi laal sama brode bi laal la tuddee gëmu leen ma je te jure après j'ai demandé au concierge de le faire sortir parce que je pensais qu'il délirait quoi mais dafa ñëw fekk ba fi ma taxaw mu ne moo ma jur xaw naa koo gëm nag après ma woo Pa Diallo ki ñu ne moo jur ne ko Pa Diallo yow mba adopté woo ma romb naa fi benn pa na man Pape Bodia laa tudd te dafa tombe man bizarrement Pape Cheikh nga may wooy mbaa du yow dañ ma laa loué nga jël pape boobu pour garder les souvenir de Gambie te ci Cheikh sa baay mu ne ma non tu es mon fils gisoo suñu bakkan ni nu mu nuroo te maa ko daax kat <laughs> Eh, sa papa bëgg bës gisoo suñu bakkan yi sa bakkanu yaay sax nga gën a jël ma ne ko jërëjëf mais Pa Bodian moom mooy cinq mu mu mu mu tiital ma foofu ca Gàmbi Amina Poté mii xam ne li may wax parce que maa ngi moom a àndoon Gàmbi boo ko weddee rek niveau Pa Bodian voilà donc je rappelle encore euh, mën ngeen a mën ngeen a continuer di woote tey moom fii la teg mbaaco laa am mbaaco Njaay yow Abdoulaye xanaa amoo remontada mbaaco waaw waaw kële créel ma mbaaco foofu rek benn mbaaco bu bien xam nga mbaaco moom ki may gis du mbaaco si si c'est wala voilà donc il faut ma tegal leen benn mbaaco ngeen am nu ngeen ci mel mais en attendant regardez euh, affiche non maa ngi def nii alors que l'affiche est là lii mooy affiche u Viviane bi allez plein écran si tu veux trop belle man de Viviane xaw ma comment elle fait pour se maintenir quoi ah euh, yow Eva dafa mel ni seen morom de te Zeyna rek seen morom la mais Viviane moom elle se maintient le 13 février 13 février février on only only only. certain thank you so ñu ngi jëm euh, Gambie euh, Viviane ak Jolof Band le 13 euh, février incha allah allez on va retrouver encore beneen téléspectateur wala beneen internaute comme ça ñu mën ko teral léegi nii ci teranga Sénégal mu mayaat leen quelques secondes allez pourquoi pas quelques secondes lu temps ngeen composé euh, benn ci numéro téléphone yi euh, ki woote léegi nii Bousso moom moo euh, tànn région de Saint-Louis ñu may ko téléviseur voilà nañ fi bàyyi téléviseur bi tera nga àddina bët téléphone téléphone téléphone téléphone am na ay xarit yoo xamante ni Mauritanie la ñu dëkk mais ñoom téléphone la ñuy wax xale dafa xel bi téléphone ma ne ah, ah ñii ñu ngi may tooñ ñu tëlbën 17h43 on a encore le temps ah 17h43 mooy doog a jot te pourtant xool leen sama ay woyu dimanche laa ëndaale woon ay sweet sweet Fanta Diallo. suite suite Fanta Diallo ay Alpha Blondy yu yàgg laa ëndaale woon ay Kassav c'était vraiment pour me faire plaisir parce que dimanche on a envie de euh, de se taper des des, des chansons d'hier de vieilles chansons Alpha Blondy laa indi woon bu neex boo xamante ni je voulais mettre ça euh, ak euh, sama classe de guerre Mansour euh, Mansour. Euh, Mansour Gueye Mr Magne mais bon euh, voilà quoi après entre temps euh, ma gis ay Kinélam gis Viviane gis ñoom Mbathio xam nga mais quand même on peut mettre cette chanson parce que ça nous rappelle beaucoup de souvenirs suite Fanta Diallo pour ceux qui n'ont ñi nga xamante ne ñoo fekkeewul woy bi am na ñu ko woyaat Magic System yéen peut-être xale yi ci Magic System ngeen koy xamee mais ñun mag ñi c'est une chanson qui nous rappelle beaucoup de souvenirs une chanson interprétée à l'époque par Alpha Blondy Alpha Blondy vous le connaissez bien évidemment équivalent su Youssou Ndour le biir Côte d'Ivoire n'est-ce pas c'est un très grand artiste Fanta Diallo rappelez-vous de cette histoire Apoulaye mets la sauce voilà merci c'est une belle vieille chanson Alpha Blondy euh, bi nag mooy Sweet Fanta Diallo voilà fecc nañ ko à l'époque ba tey ah ak euh, sama bàjjan Mam Mbenda Mam Diagne ca yooyu tàng biir biir biir plateau ay Alpha Blondy la doon fecc ay Bob Marley Jarastafari donc Alpha Blondy ñu ngi ciy may ñu ngi ciy bégal euh, les anciens ah bàjjan Mam Mbenda Mam Mbenda ñu ngi la ciy bégal bu baax fàttewuñu xaritam Astalo xam naa ni sax xel a ngi ci tele bi waaye télé bi dem na ba pare xanaa beneen tele bii de xaw ma foo koy jëlee ti télé bi bu soo woote na léegi ba tànn région de Saint-Louis ñu fekk fa euh, téléviseur bi nga xamante ni ñoo ngi ko jëlee euh, chez Jili CSB ah xanaa yaayu Awa Gueye mi nga xamante ni loge nourrit plus soigné la ñu ko tuddee ca France na Nafi Diagne bokk ndeyam Jamila Jamila mi ñu fayee Jamila mu ndaw xanaa moom mu commandé télé rek te xam naa ni boo commandé dina ñëw euh, di ci bégal aussi euh, Ablaye Kassé Aboulé Yotas oui sa xel bu ci nekkee n'hésite pas parce que Teranga Sénégal ñëpp ci bokk euh, man ngeen woote mais pas ci téléphone bi ci numéro téléphone yu télévision Futur Média di bëggee itam Jibi Coy Jibi et sa douce Rama Tafal depuis Paris ñu ngi leen di bëggee bu baax Nabou Camara yaayu Maam Sala qui se voilà qui se rappelle de cette euh, de cette chanson de euh, Alpha Blondy euh, xam naa ni boo ko dégloo rek sa xel dafay ñëw ci démb quoi di béggee aussi sunu xarit yëpp Cathy on t'embrasse Cathy ay moment Bousso allez beneen téléspectateur ñun temps yi lépp lañu daan fecc ay dañu daan fecc ay Missoua madame Missoua oui vous connaissez pas dañu daan fecc ay Monique Seka au Kamandu oh Zouk Machine mais vraiment technicien son bi ingénieur bi c'est un ancien c'est un vieux Mr Magne ça aussi c'est une belle chanson ça rappelle beaucoup de souvenirs Zouk Machine nettoyer balayer astiquer suñu jamono neexoon na nag ñun ñoo leen dàqale jamono sax yéen léegi ay jamono yi kii ngeen nekk ay jamono yi Sidi Diop Wally Seck Sidi Diop Wally Seck Tar ba yéen ci yooyu ngeen ne ñun nag newuñ ci dara amuñu woon benn problème ñun ay Monique Seka ay ay Kassav am na Monique Monique Seka bu ne foofu Okaman Doudou Okaman Yande oui à propos de Wally Seck moom tamit mu ngi jëm Gambie de ah oui est-ce que xam ngeen ni bu ñu paree Viviane le 13 dañuy fanaan Gambie dañuy fanaan Gambie ba le 18 ñu fekkee Wally Seck ak Ramdan bi. oui euh, non bàyyi ma dem rek tamit tamit grand aussi man su ma yëgoon du ma ko wax xam nga. aussi quoi non mais metti na quoi mais wali Seck mu ngi jëm Gambie euh, le 18 ak le 19 février février le 18 ak le 19 février man normalement bu Viviane demul woon sax dama ànd ak wali mais est-ce que xam ngeen ni après soirée Viviane bi le 13 maa ngi gambi le 14 le 15 le 16 le 17 léegi nag le 18 ak le 19 février Wally Seck ak Ramdan mu ngi mu ngi Banjul Sidi Diop de yàlla bu mu dem Mauritanie. ci ñaari dat yooyu man de damaa waar waaye lii lii xew ci réew mi lan la ñun amuñu woon loolu ñun ay mag lañu non ñoo neex aar nag ay okaman dudu ñun bu ñu kola darawee cotisé def suñu wet baal pare ñibbi ñaq rek moo doon suñu problème da ngay baal ba ñaq ça fait longtemps cette chanson ça me rappelle ma petite tata Adja Diallo yaayu euh, maman Kiné euh, Pa Amat ak euh, Bijou depuis Thiès ñu ngi koy béggee bu baax on a écouté ensemble cette cette chanson bu Monique Seca allez am na beneen téléspectateur d'accord ma mayaat leen quelques secondes de temps ngeen composé c'est vrai que dimanche bi je vous fais plaisir mais en même temps je me fais plaisir c'est la seule émission où l'animateur se fait plaisir et vous fait plaisir vous qui regardez donc bu kenn yàqal kenn yàqalu ma leen bu leen ma yàqal bàyyi leen ma bëggal sama bopp yéen tamit nga bëggal seen bopp am na région boo xamante ne est que xam ngeen ni am na tablette oui tablette bi mu ngi ci benn région de man mun naa sàccal sax téléspectateur ah ça dépend nag eh mon ami nga suume buumu suume kata boolo ah kati sinde ah iña omey les enfants omey eh voilà ça c'est mon ami c'est eux qui gèrent la sécurité ils sont sympas xam nga émission bi ñu ngi koy defee ci jardin euh, yu télévision Futur Média donc on voit les va-et-vient on voit les collègues on voit le personnel donc du coup mën nga def émission ba mu yàgg sax nuyoo te doo ko tey voilà jàmm sant bi allez ma mayaat leen quelques secondes tablette bi moom bëgg naa koo maye léegi tablette bi bëgg naa koo maye léegi nii S21 Samsung bu bees bi naa ko jëli. chez Jili CSB parce que falaam am leen ngeen jëndi ko mooy Samsung bu mujjee génn te Jili dina ma ko indil bu ko defee ñu maye ko dimanche prochain Jili mooy nit ko baax ba pare Jili xale la de yéen ngeen foog ni Jili paa la da ngeen di dégg ñu naan ay Jili CSB affaire yooyu maa ko mag foofu mën naa koo jur waaye yow mën naa koo jur Jili oui sama mbokk taalibe la ab murit la boo ñoo jàkkaarloo woon kër. bu dimanche jotee kilifa yi seet si ko muy nit ku baax xale bu bëri valeur donc borom CSB am na jom nangu naa liggéey c'est pas pour rien ñu def ko partenaire parce que ñun moom lu fi baax rek ñu partenaire oo la voilà ñun lu fi baax rek dañ lay partenaire oo heureusement ba partenaires yi xam nañ ni euh, groupe Futur Média c'est le premier groupe de presse au Sénégal Top Apulaay merci allo frigo bi tam danañ koy maye oui allo kii ka la Dieynaba Dia. Dieynaba dafa jar ngay te tukulóor rek nga. Dieynaba Dia pourquoi tu fais me fais ça Dieynaba. parce que je t'aime trop. mais aussi je t'aime ma petite Dieynaba. yow da nga bokk tur ak Dieynaba Seydou Ba. eh waay dëgg la. am na jëkkër barki démb. Bangoura xaw ma Tangora moom de sëy na ca waa Côte d'Ivoire am fit sëy na sëy na ca waa Abidjan Tangara xaw ma Sangora <laughs> yéen jéena bay ni ngeen amee fit yow yàlla nga am jëkkër bu sant Sangare. nga nekk goro umu Sangare ca Mali. amin amin Dieynaba Dia. ma petite Dieyna. oui comment tu vas. ça va et ça va ça se bien. fan nga dëkk. man maa ngi dëkk Parcelles. ban unité. unité 12. unité 12 ans. Ah. oui. d'accord léegi maa ngi ñëw présenter leen réfrigérateur bi ñu may xaaral ma je m'occupe de Dieynaba alors Dieynaba. oui. gis nga télé bi de moo nekkoon Saint-Louis. oui gis naa ko de macha allah. mbaa xam nga ni tablet bi mu ngi ci benn région. waaw waaw xam naa ko kay. ma sàccal la parce que tu m'aimes. Oui, j'aime trop. Pour que tu encore laa lay waaj a tegal léegi je retournerai <laughs> si tu l'emportes <laughs> ailleurs. non mais yow. y non seulement dama lay sàccal dama lay wax léegi nii ban région moo am tablette. Hmm. mais en même temps dama lay woyal pour que encore. waay. kan moo ko woy. pour que tu m'aimes encore je me retirerai pour que tu m'aimes encore je sais pas quoi pour que tu m'aimes encore xamoo way boobu. xam naa ko ni. raisonnable et nous. bii lañ doon teg ci réception yi. ba. Tous les jours ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Que c'est tous à pélasse, que les amours aussi bas. Jenaba, je voudrais que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses. d'autres dansent les autres. J'irai chercher ton âme dans le <laughs> xam nga ci way bi tubaab bi dafu ñu de mu ci naan les marabouts d'Afrique. ay. yéen léegi bu ngeen nobante no no bu ngeen nobante da ngeen jël tur yaayam ak turam bi yóbbu ci marabu bu rek. <laughs> di ko travailler di ko travailler di ko travailler ba mu mujjee afa sax xam nga xam nga kan moo woy woy bi non Céline Dion mais on di pas Céline Dion on dit Céline Dion ah d'accord c'est la prononciation waaw fii Sénégal dañuy wax Céline Dion même les animateurs ils disent ils disent Céline Dion mais elle s'appelle pas Céline Dion elle s'appelle Céline Dion d'accord c'était la femme de René Angélil D'accord. Elle a trois garçons, un garçon, René Charles Junior, et deux jumeaux. Trop de connaissances. waaye yow man ma tëral ko de sax arrête de faire genre bàyyi waxu Pawlish yi ngay wax <laughs> waxi <laughs> allez Dieynaba euh, et tu sais que c'est une Canadienne. Ah bon. oui elle est à Montréal. et euh, elle chante trop bien. Trop même. Elle a juste maigri, mais elle chante trop bien, quoi. <laughs> Pour que tu m'aimes encore, quoi. Ouais, je t'aime xam nga ni dee na. ah yo René yooyu jëkkër. yooyu ko ni René <laughs> dee na bu yàgg. Hmm. oui son mari s'appelait René. bu jeexee ma woo la yow xanaa da ngaa fàtte sama jikko. xam léegi barke Ami Galaslo buy jeex ma lay woo. Diène son mari il s'appelle euh, René Angélil il est décédé il y a il y a, il ou trois ans quelque chose comme ça voilà mu nga ñu suul Canada. waaw gis nga loolu yow yow dégg loolu yow Dieyna xanaa xanaa naka la ko xale yi di waxee xanaa neex. xanaa neex. ñu delluwaat région de Saint-Louis il y avait benn téléviseur ñu delloo Saint-Louis place am léegi. yow yaay xool bu la neexee. ma tànnal la région boo xamante ni euh, kii moo fa nekk tablet bu la neexee nga tànnal sa bopp peut-être mën nga am lu ëpp tablet mën nga am xaalis wala nga am lu la neex yaay xool Dieyna d'accord qu'est-ce que tu veux ma tànnal la région boo xamante ni dama lay sàccal parce que tablette moo fa nekk wala tu veux que je de l'argent je veux de l'argent maman. Ah, l'argent appelle l'argent kontaan na kii moo gàtt wërsëg. jéenaa yaa gàtt wërsëg tablette bi nga xamante ni xam nga argent mën nga faa fekk deux cent mille mais tablette u deux millions. ak fi réew mi toll. ma tànnal la ma ma tànnal la. léegi léegi dama lay tànnal ah. waaw d'accord bàyyi ma tànnal ko. waaw tablet waa ma tànnal ko léegi xam nga nu may def ma petite Dieyna. xam nga man damaa bëgg na ba yëpp. Mm-hmm. léegi bàyyi ma tànnal la région de Matam est-ce que ça te va. d'accord ça me ñu dem ci Matam. ok. bàyyil mu gis. allez. ma pose ma pose Matam ma pose Matam. ma pose Matam léegi Jeynaba nga ni fan nga dëkk Parcelles Assainies unité 17. unité set unité 12 dama am ay trou de mémoire. yow xamoo problème. mais damaa trop chargé dëgg la de ah bu nga ma wàññi li ma chargé. non yow kay eh, bu ma chargé du baax dafa bëri. <laughs> est-ce que xam nga ni tablette bi xadi yàdd bëggoon na ci waaye duma ma ko jox xam naa ni xadi yàdd ak maam Mbenda seen xel nga ci tablette bi léegi boo paree ñu ñu décompteel la région de Matam. d'accord je t'écoute. allez c'est parti ñu décompteel Dieynaba région de Matam. Allez. Tablette Ouais wow. Tablette Ouais Attends, pour ngeen gis ko. Ouais Gis nga ni may dawee ak moom. Je bi xam nga lu ma la ciy tegal. Euh, naa la defaral montage benn photo boo xamante ni yaay nekk ci digg bi Wally Seck fii ak Sidi Diop <laughs> damaa bëgg boo gisee photo bi rek nga reetaan <laughs> allez regarde tablette tablette bi yaa ko moom félicitations ma Dieyna. merci beaucoup Pape Cheikh Diallo. c'est pour toi Pape Cheikh Diallo merci beaucoup Dieyna. merci. bisous ma petite Dieyna. Bon dimanche. allez maa ngi lay xaar comme sa nga ñëw jël ci sa tablette. voilà merci Dieyna am nga tablet Cheikh Diop. mon ami Cheikh Diop comment vas-tu. ça va ou quoi c'est toi qui présente le journal. wolof bi ah. ana Modou Mohamed Ndiaye xanaa ñëwul. eh wàññil wàññil wàññil wàññil moo wax ak Cheikh bi Cheikh Diop. mais nag kaay Modou Mohamed Ndiaye moo la gën a ay de. ii Mamadou Mame Ndiaye temps yi mu ngi toj journalu 19h30 bi wolof bi xam nga nit ñi dañu tàmm di ko déglu ay rajo affaire yooyu noonu di ko gis tuuti ci tele bi mais écoute man Mamadou Mame Ndiaye de te mu gis nga li mu toiletu ba pare moo leen dàq sañse mooy sa waaye yow de naan nga nag Cheikh Diop waaw ah, demal nga préparer ce journal bi da ngaa war a wax ak sénégalais yi 19h30 Cheikh Diop il est se préparer mooy journaliste bu bees bi ngeen di gis ci télé bi il fera le journal en wolof euh, dans quelques minutes je pense ah ou presque une heure de temps après moo ci lay moo enfin ci la ko war a def quoi ci kanam vers 19h30 voilà moom Cheikh Diop ñu ngi nuyu Mamadou Mohamed Ndiaye ak soxnaam euh, saa xel comme la ah n'est-ce pas wala yow xamoo yooyu Eva yow de yooyu. da ngaa yaru xamoo dara dugub dugub dugub dugub dugub dugub dugub bëggub soow voilà booy ngaa bu nag mooy Mamadou Mouhamed Ndiaye ñu ngi koy bëggee bu baax maintenant damay toog tuuti parce que mag la ma gis nga mag ñii xale xalelu dañuy jékki-jékki rek sonn li ma fi fecc ak li ma jaabante di wane ay toilettes ak yooyu damaa mën a wane wu fi mu ne commencé na maa sonn mais yàlla baax na man daal li may def rek mooy jëlaat encore beneen téléspectateur am lu ma ko terale bu ko defee bu ma ko teralee rek ñu jëlaat keneen koo xamante ni euh, dafay euh, euh, dafay am xaalis voilà donc 88 deux vingt 22 ndeef Euh, Kor Samba Diarra ca Italie euh, ndef nag suma jabar la waaye euh, xale bu doy waar la dañuy ne ci seen téléphone yi di jëw ñuy génn télé nee na ma Cheikh Diop bi leen di présenté journal xanaa du ngeen ko jëndal diw xam nga yooyu rafetul yenn saa ñun ñi suñ suñu poudre yi day ëpp loolu rek la génn télé dafa metti tu passes à la télé avec tes imperfections mais on te te yow te moom yoonam nekku ci jëkkëram jàng manqué ca Italie xamul problème mais bon de toute façon mooy loolu et eh, ma petite Géla je t'embrasse très fort Géla SVA Géla King FM et puis on pense à Maïté qui a perdu euh, sa mère c'est ça maite oui euh, ñu ngi lay xalaat Maïté fii la nekk euh, euh, di jàpp ci liggéey bi ci Teranga Sénégal ak SVA di jàpp ci liggéey bi ci King FM donc Maïté on pense à toi on t'embrasse très fort elle est très adorable euh, c'est une sainte sax parce que Maïté du raté église bokk ak ñoom Eva yi nga xamante ni bu dimanche jotee dañuy grasse matinée parce que taxawaalu samedi moo leen neex il faut aller à l'église il faut prier religion moom ak boo ci mënti nekk il faut prier il faut prier c'est important il faut prier surtout pour moi yéen bu ngeen bëgg dara man bëgg naa dara ku ci julliwul fu sa bopp sax di julli pour man voilà il faut aller à l'église et puis c'est bien quoi donc ñu ngi nuyu bu baax euh, ki nga xamante ni euh, mooy euh, Maïté on t'embrasse tu nous manques tellement donc ñu ngi koy xalaat ainsi que tous tes Euh, yi nga xamante ni ñoo nekk euh, King FM ñoom dañoo nekk chômage chômage technique mais groupe WhatsApp la ñu nekk rek di ca wax rek fan yëpp <laughs> liggéeyuñu dañoo chômage technique man directeur bi sax mënu ma dara yenn saa yi ñu ne xaar ñu woo directeur du King FM laaj ko ba xam dina mën a faj suñu soxla fekk yow maa leen ëpp soxla allo waa mais grand mais grand bi te booy grand bi lañ may woowee de waa mais grand bi kan la ñuy liggéey boo grand bi maa ne ko ah rajo ba de tëj na waaye <laughs> King FM ndeysaan kii la woon. faux départ mais yàlla baax na man daal maa ngi leen di xaar je vous attends wàcceel caméra bi yow it am na air ci kaw quand même man daal damay toog tant que un million bi demul du ma fi quitté voilà 88 628 20 20 bii tant que joxew ma un million léegi du ma bàyyi da ngeen di jaay baax rek di ngeen xam ni maa gën a baax ñi ñi naan dañoo baax tan que un million bi demul du dem allez ma mayaat leen quelques secondes Pendo ana pata bi ngeen di toogal ci kàkkatar ay pata boobu moo am fit yow wàññil musique bi pata boobu <laughs> moo tax dégg naa chaise bi muy toog saa yu kàkkatar jeexee ñu buuba jënd beneen siis yëpp a damm télé bi manqué ne siis mais ñoom dañoo waa waa waa kii décor sonn nañu de parce que daaj nañu daaj ba sonn léegi dañuy jënd chaque chaque kàkkatar chaque quinze jours imagine nga jënd benn chaise loolu dépense la moom aliment normalement waruñu koo fay moom moo war a fay télé bi <laughs> écran sax boo koy seetaan yow say bët day diis Alima ci boppam moo diis waaye Pendo rafet nag naaru Kiné Diop ji sama la woon sax temps waaye daf ma bàyyi yow promotion na def ça va yaa ngi baax allez na keneen ñëw oui euh, te kat émission boobu li ci neex mooy xeetu jigéen yëpp ngi ci jigéen bu rafet. sa yoon nekkul ci li ma sañse damay animé jigéen bu rafet a ngi ci jigéen bu xaw a ñaaw jigéen bu xeereer ak jigéen bu pataa jigéen yëpp a ngi ci kàkataar moo duggee nag moom kenn xamul dafa zulu moom woteefam boobu moom xam naa ne bés bu ma ko seetee naa yóbbaale tondoos du tondoos moom bi vingt boobu naan vingt je mu ngi fii ci almadi mooy yaay or foofu fa la Bouba Ndour di fréquenté mais moom daf ma jaaxal ba pare lu ko neex lay wax moom moom kii te kenn du ko wax dara man su ma waxee ñu amee ma Modou Gueye ngi wax yi ko neex sénégalais duñ ko wax dara waaye man su ma nee jaan sax ñu ne nee na sénégalais ay jaan lañu yu xam nga loolu tam métti na yàlla baax na Eva bàyyi di dara sama xel bi naan nga génn ci sama macha allah ay kàkkatar c'est une belle émission en tout euh, mu rafet mi nag yee yaawa de yaawa dafa rafet ba xam ni dafa rafet. gi nga façon bi muy reetaanee mooy reetaan yooyu nga xamante ne da ngaa xam mooy reetaanu Amina Poté yooyu rek nga xam ni da nga xam ne da ngaa rafet lool mais da ngay ree buñ la nee da rafet nga ne ay yu bàyyi tooñ fekk yaa gën a xam en âme conscience xam nga ji da ngaa rafet li taasukat doon wax aka jongoma aka rafet li dal yaa awa waaye baax na ndeela maa jot juuf nag démb manto la maye fir bi afro bi ajuza la ma jox elle est adorable moom tamit sama xol la damay bañ ku ba tàppaas ndee la daa baax de mu ko waxee lu ko nag xëri léegi Facebook live am lay def ak YouTube yàq ma njaajaan njaay mais sama xol la parce que Moïse doomam c'est mon petit neveu voilà Moïse je t'embrasse c'est mon petit jarbaat quoi voilà alima de ngi toll ni kii amana amoon naa waa classe bu pata boo xamante ne xam nga nu ñu ko doon wooyee suñu musée parce que ñun temps xale musée la ñuy wax on n'avait pas de maître de maîtresse de machin on disait musée suñu musée la ko daan woowee te benn élève la bu pata tool ni alima <laughs> waaye alima ci télé ngeen koy gis ak mën rajo ambiance kat la boo xamante ni elle cartonne dans Kakatar donc ñu ngi koy fóon bu baax ak ñoom Pendo ak ñoom yaa awa kan laay nuyuwaat balaa may kii un million laa bëgg a joxe léegi nag un million 88 628 22 22 bon ça dépend un million yi nag munu mu leen ko sàccal comme ni ma sàccalee léegi tablette bi ki dugg léegi nii tudd na c'est-à-dire un million bi yéenay tànnal seen bopp benn région am na région boo xamante ni am na un million am na région bu am deux cent mille am na région bu am trois cent mille am na région bu am quatre cent mille donc un million bi xaw ma ci kan la nar a tombé je sais pas ma li ma laa tel leen numéro téléphone en euh, par un ataaya takkusaan nag dara dara dara dara dara dàq ko ma joxaat leen numéro téléphone yi yo wàccil wàccil caméra bi aussi jili vingt 628 20 20 kii naan ma ataaya bi yolo yolam na fu bi moo kii pourtant tiflit am na fuurit de mën naa ko ci def ci kaw pour décorer ataaya bi ah allez ñu ngi nuyu euh, kan man lan laa doon wax sax oui numéro téléphone yi 1 million bi jar na ko kay 88 628 20 20 wala 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 wala 88 628 20 30 wala 88 628 65 65 wala 88 628 72 86 wala 88 628 76 76 1 million mu ngi ci benn région xaw ma nag kan moo ci nar a dal mais maa ngi leen di xaar. voilà on a encore quelques minute 18h12 parce que su ma fi jógee maa ngi jëm fi méridien damay mat dama fay présenter ji émission bu dul génn télé xam ngeen kànga jum moo fay def lu rëy fii ci méridien président bi falaa jëm léegi moo tax Pape Cissé ma lay ñaan bu 30 jotee rek nga libéré ma wala nga fay ma li ma kànge di fay rek waaw ah, yaay xool rek bu dee da nga bëgg ma toog au delà de 18h30 fay ma li ma kànge di fay voilà mais fa jëm léegi ca remise diplôme ba en attendant ñu xoolaat beneen téléspectateur un million mu ngi léegi nii ci benn région kan moo ci nara dal yaa Cheikh Diouf lay béggee bu baax yow nee na des na ndoy baan non ndoy baan garaawul miin naa miin naa moom dama ko tooñoo tooñoo tooñ ba mënatuma koo tooñ moom ndoy baan def naa li ma ko yàq yëpp ci télé kenn mësu ko koo yàq moom inspecteur ndoy baan allez donc euh, bi c'est parti un million bi nag demagul te xaw ma nag kan moo ci nar a dal je suis en train en même temps de lire vos commentaires euh, ci page Facebook bu télévision Futur Média je veux des cœurs des cœurs mais ndeel li mu leen la ñaan ñaanee cœur méttiwul bon léegi ma xool ma xool Facebook bi téléspectateur bu ci nekk léegi nii xaaral ma xool leen ci Facebook bi allez je vous donne je vous je vous donne quelques minutes le temps ngeen envoyé ma ay cœur ma tànn benn internaute te internaute yi nag yéen. du ñu leen sonal c'est-à-dire dama leen di jël woowal leen sama bopp nga xam ne du ngeen frais ñu jox leen seen wàll ci li may maye mën na nekk cinquante mille voilà seen wàll rek laa leen di jox donc j'ai vérifié maa ngi gis ci euh, page Facebook bu télévision Futur Média ndeysaan ki nee na ay waay woote naa ba sonn s'il vous teral leen ma ci barke Cheikhul Khadim GFM teral leen ma xaar naa ci serveur bi ba sonn ndeysaan ay yéen woo leen ma kii ngir yàlla ak yonent bi moom li mu bind ci Facebook bi dafa daw sama yaram ah je pense que mu ngi tudd je pense que mu ngi tudd nan samay bët baaxatul wi Penda waaw nday Penda woo leen ma ko ci ginnaaw ñu dugal ko je vérifie en même temps Facebook Facebook 1 million nag ci téléphone bi 88 628 76 76 du ma leen wax exactement ban. Euh, merci beaucoup maa ko capture léegi nii man de man sama téléphone bi mbaa yi ma ciy def yëpp du feeñ ci télé bi finalement jamono neexul de man de maa ngi capture du yónnee rek muy jàll ci écran bi nii ngeen lii ah! te baa ngi jot yu ne ay yooyu ak yeneen <laughs> xool leen li ma capture at man de léegi TFM dafa connecté wu ak sama téléphone bi léegi xanaa xaw mun naa toog sama kër sax émission bu ma neexoon ma coupé ko. yooyu yëpp yàlla da koy maye te may na ma ko xoolal li ma screen léegi xaaral ma ma defaat xaaral ma dindi bii def ci beneen regardez xaaral ma pouce bi gis ngeen lii yëpp sama téléphone la gis ngeen c'est-à-dire ni may utiliser téléphone bi nii mooy jàll ci seen écran seen ay biir kër maanaam mën naa toog sama kër fiil dara rek bës ko mu jàll kër yëpp <laughs> allez na beneen téléspectateur dugg très rapidement 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 Badara Thiour sama rakk ji Badara na nga def naka waa Istanbul yow Badara amelu ma la woon xaalis doo ko ñëw jëssi baax na ñu xoolaat beneen téléspectateur 88 628 Euh, 22 22 wala 88 628 04 05 mbaa xam ngeen ni su ma jógee Gambie le 13 euh, Viviane ak Jolof Band ñu ngi fa le le 13 février ñu ngi euh, Penchami Hall ak Viviane regardez l'affiche est là ah ma pousse nii tuuti voilà comme ça Facebook bi wala c'est bon d'accord c'est bon merci Apoulaye donc Viviane le 13 février fa la ñuy célébrer Saint-Valentin bu ñu fa jogee le 18 ak le 19 ñu àndandoo ak Wally Seck Gàmbi neex na nag man yàlla bu ñu cat topp bu ñu tëj Gàmbi parce que xam naa chef d'État yi <laughs> yàlla baax na yande maa ngi lay nuyu bu may dem Gàmbi yande laa yàndal ak po policeman Njaañ aji soose aja ah, ah, Aida Socé ak may xaar allez beneen téléspectateur na dugg léegi nii wala euh, donc balaa muy dugg ma njëkk a jël internet bi bind message bu daw yaram bi alo allo la. wax nga dëgg Ndeye Penda maa la woo. <laughs> yow daal maa gis sa message bi damaa gis sa message bi damaa gis sa message bi daw yaram rek moo tax ma screen ko yónnee ko euh, ñu defal ma ko ci télé bi ça va Penda. waaye ndey pent li nga bind daw na yaram de ay waay woote naa ba sonn s'il vous plaît GFM teral leen ma barki Cheikhul Khadim GFM teral leen ma xaar naa ci serveur bi ba sonn s'il vous eh, waa léegi damay bañ nga catuma bàyyi ma mosal la rek après boo jotee nga tànn région mais yow dama lay mosal fukki junni rek. voilà. ah. kontaan nga. man tam kontaan naa ndey penda Ndeye Penda voilà ñu ngi lay ñu ngi lay bëggee bu baax jërëjëf Ndeye Penda. ok jërëjëf merci Ndeye Penda voilà cinquante mille yi am nga wéef non. ma envoyé la ko par code. waaw mun naa la ko envoyé léegi dinaa la dinaa la en la envoyé cinquante mille par code mais fexeel wut application bi comme ça su ma lay yónnee waat mu mën a yomb. d'accord. waaw d'accord monsieur kontaan naa. man tam kontaan naa je t'aime moi aussi. ah Kayar nga dëkkee. waaw. foofu de war naa bari jën. ci xewal lañ bokk. yow xam nga man lan laa gën a bëgg. woote nañ nga ni Kayar nga nekk. woote nañ ba sonn léegi. waa léegi may naa la cinquante mille ba pare woo la teg maa la woo may la cinquante mille muy sa wàll waa léegi rappel si tu comme ça bu sa wërsëg nekkee ñu may la un million nuyul ma waa Kayaar yëpp dégg nga waa nañ ko dégg day pend may ma ay may nday pend maa ko wool sama bopp ndeysaan te baax rek Adja Khady Yade ñu ngi lay bégee bu baax euh, voilà 88 628 22 22 wala 88 628 04 05 wala 88 628 euh, 76 76 donc lii yëpp ay numéro téléphone la yoo xamante ni bu ngeen ci woote euh, di ngeen ñu mën a jot ñu ngi koy benn bennal noonu euh, voilà ñu ngi koy benn bennal euh, ñu ngi koy benn bennal ci. Euh, ci euh, ci suufu écran bi voilà mon ami Papa Ndiaye le New Yorkais maa ngi lay bëggee bu baax nuyul ma Adja ak Kentra ah fàttewu ma Awa ca New York ak Nabou maa ngi leen di bëggee bu baax 88 628 65 65 allo alo alo alo allo. allo bon euh, kooku defe naa euh, amul chance c'est vrai que téléphone yu xëccoo la quand même mais un million ci benn région jar na ko gaaw leen balaa may tàggoo heure baa ngi bëgg a dem de 88 628 04 05 Omar Cheveux ñu ngi lay bëggee bu baax nit ku baax la euh, moo soutenir Amina Poté ci yeewu leen plus bi ambiance Richmond Gis ci télévision Futur Média chaque jour diggante 11 h Euh, jàpp midi 30 Adja Dior Fall yaayu Awa ñu ngi koy bégee bu baax maamu Picola suma yaay suma xol Adja Dioma Idrissa mbokk ndeyam madame Diagne jabaru Babacar Diagne CNRA ñu ngi leen di bégee bu baax suma yaay yu baax yooyu nga xamee ni dañoo bëri valeur maa ngi leen di ndokkeel euh, moolo Ba moom Molo Ba ba bay di maal mama Molo yow it ñu ngi kontaan ci yow di la ñaanal dimanche bu neex euh, Mbathio de amoon naa yaakaar ni dina jàll ndax sama rakk la sama la. waaye xam nga temps moom dafa amatut dix huit heures vingt xaw ma vingt comme disait mon frère di nuyu tamit euh, aji euh, aji euh, borom ji haute couture ñu ngi lay béggee bu baax borom marque bu mag bi fàttewuñu mata style mata style Mata Style fii ci euh, boori nag bi noor foire xaw ma west foire daal donc ñu ngi bëggee bu baax euh, Mata Style euh, moom suma rakk la suma jigéen la mbokk ndeyam wareetu waalo waalo bi duggul waañ xamul ci lu baax ndax jaam yaa bari di nuyu nag sama chéri Ngoone Njaay géwél xam nga ni moom laay waaj a takk xam naa semaine bii dinaa commencé maye njëkke yi ba nga njëkke Eva buggoo may la njëkke ci Ngoone Njaay buggoo ma takk ko buggoo sama dee man damaa bëgg a dee damaa sonn maa ngi takk Ngoone Njaay nag par la force man maa sonn ci yéen waaye yéen léegi bàyyi leen ma man bàyyi naa leen man nan laa bëgg a takkee Ngoné Ndiaye xale yow xamante ni fettaguñu naan ma bu ko takk dangay gaaw de dee kan moo la wax Ngoné poson la day ree Ngoné daf la nuroog danger daf la jox danger dafa danger we waaw day signalé danger nag Saalum Bigue Ndiaye Gambeen Ngoné Ndiaye waaye foog ma essayer ko fan yii de waa bàyyi ma essayer rek bàyyi ma essayer essayage test yoo xamoo test xanaa xamoo ngóone léegi bu woote woon léegi ma wax ko région bi am un million mu dem je te jure jaral na ma ko voilà dañ ko koy jiiñ nag waaye du moom de Sall bii nga jaay ak Gambeen allez du ma ko fecc du ma fecc jaay tee pok jaagu fan la doon fekk moom ndaa ndaa teel ndaa teel ndaa teel kañ dimanche ngoon ay jikko ay jikko këmëxël <laughs> andiwaatal foofu ngoone këmëxël ba mu neex xam nga Salifou Ndiaye comme dimanche lañ ko may jabar ay mu koy këma ba mu neex <laughs> merci Ngor Ndiaye da ne daf maa bëgg a këmax ah kon kaa ñu këmaxante rek këmax ndaa teel Salifou Ndiaye may nañ ko jabar ci ngoon may nañ ko jabar dimanche ci ngoon loolu dafa deex de kuñ may dimanche ci ngoon de jabar dafa daa lundi doo xëy allez beneen téléspectateur Fari Mangane jolof jolof bi yaa bëri valeur maa ngi lay bégee bu baax ajaratu Rama Diaw yow dinaa la may njëkke dinaa la may njëkke kajaabu ndaw naaru kinna jóob dinaa la may njëkke bi ku jara cas sipi jam leeg sipita jam leeg ili ba seen jam li njëkke xaal ma lim sama njëkke yu bëri euh, Fama madame Guissé dinaa ko may njëkke voilà gisee la sa borom kër tuddu baax lool allez nag kii euh, beneen téléspectateur euh, ñëwaat léegi nii très rapidement 18 vingt 24 allo allo allo. allo Pape Cheikh. oui. ça va noo def. maa ngi nii rek la ma daan def. man maa la Khadija. <laughs> yow la kan. maa la Khadija. Khadija na nga def. ça va maa ngi ci jàmm alhamdulilah. ça va ma petite Khadija. maa ngi ci jàmm. <laughs> fan ngay fan ngay wootee Khadija. Euh, maa ngi wootee Sacré Cœur. yaa ngi wootee Sacré Cœur fan ci Sacré Cœur. waaw. trois man ne temps yi damay jaabante côté boulangerie jaune. ah kon bu doo teg si dinaa fa ñëw xam nga côté côté côté salon Amélia. ah Amélia xam naa ko bu baax. côté boobu fala fala na fi jaañ dëkk fala yendu fan yi kon kon boo fa jaaree nga jaar teg si sorewul ak sa kër. non non. jéem léegi su may déposé Amina Poté salon Amélia. bu wàccee le temps ñu koy defar. waaw waaw man dinaa fa jaar. dinaa la xaar. <laughs> allez je vais pas te retenir ban région nga bëgg ma tànnal nga nga bëgg a tànn. Euh, xoolal ma Dakar. ma xoolal la Dakar. waaw mais Dakar dafa koro. <laughs> allez on sort la région de Dakar de la carte. pour Khadija naka Sacré-Cœur mu ngi neex. ça va mu ngi alhamdulilah. sori woo kër non non non. ah c'est bien ça Khadija. ça naka dimanche bi. ça va ñu ngi relax nii. waa dimanche moom jour relax la moom yenn saa yi sax nga mbartalu ba point. waa gis nga. léegi nag xam nga lan laa bëgg ñu defanteeg Macky Sall. waaw waaw. comme moom ne bu 21h jotee ñu toog suñuy kër. waaw man damaa bëgg 19h ñëpp dugg may ko li des ci heure bi. <laughs> yow nag yow boo citoyen comme ça la corona bi jóge fi ñëpp nekk ci jàmm. xoola xoola moom sax dina romb dëkk bi du gis kenn 19h dina jaaxle ba ba ba bàyyiwaat ñoog suñu heure yi. non ni mu ah. def baax na Pape Cheikh. waaw baax na kay mais tamit on a envie de sortir quand même ma petite Khadija. benn benn cinq minutes sax day tax virus bi du circuler ba tey baax na. léegi man xam nga lan laa bëgg xam nga entre 19h ak 21h du 2 2 heures temps moo ci des. 2 heures de temps waaw léegi damaa bëgg bu 19h jotee ñun ñëpp ñu toog afasa may Macky Sall 2 heures de temps yi des. waa def ko revue de presse ñëpp toog. <laughs> jeena léegi ma décompté la région de Dakar. waaw s'il vous plaît. allez yow yaa yaru de s'il te plaît xamuñu sax commune ak communeul 3 2 de Dakar bravo Khadija bravo 150 000 ah ouais yaa ko moom yow da ngaa baax. c'est xam nga nit ku nit ku gentil day feeñ ba ci baatam. yow ci sa baat sa baat maa ngi sentir euh, nit ku baax nit ku sympa voilà. yow bu doon France nga nekk dañ la naan Khadija tu es chouette. kaañu ah, merci. <laughs> voilà léegi euh, décompteel naa la ba fekk cent cinquante mille région de Dakar moo wéev la ko. <laughs> yow apparemment da ngaa plafonné de ma grande. da kay yow nekk da ngay jëfandikoo wéef. Ah, non non <laughs> eh, barki ami galas loo da ngaa barki ami galas ah, loo. dama ko la chargé woon pour fay sama facture. ah mais voilà yow. Ah, Diallo Khadija yow Diallo laa sant nga ni paa juruma. ah. laa sant nga ni paa juruma. non. mais eh ma j'ai raison dama la yónnee léegi nii mu ne ma. ki nga yónnee cent cinquante mille bi dafa plafonné mais y' a pas de souci de toute façon cent cinquante mille yaa ko moom de. waaw léegi defal ma ko par code. ma defal la ko par code. waaw d' a laisse-moi voir ça laisse-moi voir y' a pas de souci laisse-moi voir ça ah. ah. c'est gentil defal ma ko par code rek. ma que am nga compte ba pare. waaw léegi defal ma ko par contre ma jox la beneen euh, bon comment on va faire. waaw léegi te ngaa déplafonné rek parce que yow tamit euh, Wave ñoom tamit samay la lañu te dama leen bëgg a liggéeyal ñoom tamit ñuy nekk ci téléphone yi di déplafonné wu moo gën yow tamit 150 000 bëri na baax na. moo gën waa. <laughs> ah déplafonné de toute façon xaalis bi yaa ko moom j'ai ton numéro tu as le mien euh, yow yaa moom 150 000 bi. <laughs> waaw voilà euh, waaw bàyyi ma bàyyi la ci ginnaaw ñu jël la organiser loolu nga nga mën a déplafonné wu léegi nii très rapidement euh, nga mën a nga mën a am ci euh, ci li ngay sol dégg maa li ngay sol cent cinquante mille yi ñu lay yónnee léegi nii dañ la ko nar a wave alors vingt 628 20 20 dem nag ba dëkk bu ñu naan Amérique nuyu fa jee astu sare xam naa ni su ma amoon jot way bi ko Ndey Diouf mu Sëriñ Fàllu woyal naa leen ko tegal mais malheureusement 18 vingt 29 mooy doog a jot te war naa bàyyi programme bi ak ak leeku euh, ngeen mën a seetaan ñaari euh, jotaayu xibaar yi benn bi français di ngeen ci ànd ak Cheikh a astafurla benn bi wolof euh, di ngeen ci ànd ak Cheikh Diop bi ci topp 20h bi di ngeen ci ànd ak beneen cheikh bi muy Cheikh Tidiane Pape Cheikh Cheikh Diop Cheikh Tidiane donc trois cheikh ci benn après-midi. il y a que TFM pour ça restez avec nous continuez avec nos programmes ñu euh, euh, xolaat téléspectateurs mais man sama téléphone dafa mel ni xam nga photo bi ngoonee ma ko yónnee léegi mu ngi feeñ ci écran bi eh yéen du ñu régler problème bi est-ce que xam nga ni sama téléphone bi laa connecté ci télé bi lépp lu ma jot day jàll fi Ngoone Njaay de moo ma yónnee photo bi léegi fi ma koy yónnee simila ak Sall ma gis ko ci télé bi i i hee xaara xam nga nu may def mais est-ce que dinaa mën a déconnecté déconnecté ti sama téléphone ci télé bi non parce que photo yi c'est personnel quoi Ngoné man la ko envoyé je voulais pas que tout le monde voit ça quoi ah waa baax na yàlla waxul kenn dara xaaral ma nuyu ñoom Ndeem ak Serigne Abdou ak Astou Sakho madame Mbaye Ndeem sëriñ sëriñ baabu sëriñ baabu sama naaru daan maa ngi ko bi sëriñ baabu ñu ngi lay bëggee bu baax yàgg maa bëgg Zik FM ba tey maag moom mu fidèle rek te loyal sëriñ baabu topp na ma King FM topp ma TFM topp ma Sen TV topp ma RTS moom daa fu ma ne mu topp moom intérêt bi intéressé wu ko seex ko intéressé man daa damaa waaru kaay ñi ñàkk fidélité dañoo tuuti de ay cinq lañu mais les gens fidèles am am bari bëri nañu sëriñ baabu ci la bokk ñu ngi koy bëggee bu baax suut tuut tuut tuut tuut tuut jaasu sare nag naa ko may njëkkee ci Ngoone Njaay géwél bàyyi mu may ko njëkkee rek dinaa ko may njëkkee jaasu sare jar na ko xanaa xaw ma su ma ko mayee njëkkee jërë def ni mu defal Pendo 4-4 day bàyyi ba jour mariage bi mu wàcce ko fii ci Dakar xam naa jikkoom moom Arnda yaa rek Koan Dieye noonu la dëkk ak ñëpp léegi ñu xoolaat beneen téléspectateur très rapidement balaa ñuy tàggatoo continuer d'appeler 88 628 22 22 di bégal nag bu baax Fademba Diop. Euh, faa dem la Linguère borom tagal yu kawe yi xam naa bu may takk ngóone naa ko fa indi bu ko defee nga organiser ma musóoram parce que ngóone moom tagal bu kawee koy jàpp Caba euh, Diagne madame le maire ñu ngi lay bëggee bu baax borom climatiseur yi ci man xam naa yow it di nga am di nga nekk di nga bokk ci njëkke yi euh, Sow mu ngi Suisse Adama yow ñu ngi lay bëggee ah xanaa sa jabar la ñuy may njëkkee rek nuyul ñu waa Suisse yëpp di nuyu tamit sunu xarit suma yaay bu ndaw Fat Fall Balago ca France moom itam kontaan nañ ci moom allez 88 628 04 05 wala 88 628 22 euh, 22 euh, euh, remercier juste euh, euh BJ euh, Believe in your job pour pour cette belle tenue man nag dinaa dellu soit incha allah demain matin notez bien NB nota bene kii kan la ni yow waaw man sama téléphone bii di jàll nii photo ngoone yi di jàll ci télé bi li mba jàmm la <laughs> lii ma jëm la photo yu ma yónnee yëpp nag mu ngi jàll balaa may sax ma euh, tàggatoo ak yéen euh, demain je vous retrouve ah n'est-ce pas Djily demain demain demain dinañu ñëw non n'est-ce pas Djily bi c'était pour nga suivre ma nga may tontu ah demain dinañu dellu si à partir de 9h gërëm Eva euh, Pape Mor Mansour Mansour Deko Mansour Son Mansour Guèye gërëm voilà kan moo des Djily Diémé Apulaay moo réalisé tey. ah moom c'est un bon réalisateur euh, defe naa jeex na de ah Pape jaxate Diakhaté càmmiñu euh, Sophie Diakhaté moo nekk ci euh, ci beneen cabine bi merci à tous faites-vous plaisir cultivez la joie te bu leen kenn yàqal bëggee leen ba mu neex lii nag jeexagul ay enveloppe yi enveloppe am na ay un million am na ay téléviseur am na ay réfrigérateur am na ay salon te Teranga Sénégal bi dafay continuer encore fii ba daanaka février di bëgg a jeex voilà je serai là-bas je serai là là là bi man ak malfaiteurs yi Bijou Ndiaye Mamadou Ndiaye Thioro Mbar sofi Mado Maymouna Force tranquille et qui d'autre oui ñoom rek la àndal suba demain dès 9h on se retrouve en direct lay doon ci télévision Futur Média première télé fii ci Sénégal